koo xamante ni yaa ngi toog fi nga xamante ni mooy sa kër jàkkaarloog télé bi nga xam ne mooy télé bu mag bi ci réew mi di télé bi bégal askan wi di QTV tey nag ku ne xam na ne tatiyet décembre bu jotee seen xel dafay daj li nga xamante ni mooy dugg ci at génn ci at dugg ci at loolu moo tax tey jii ñu fas yéene bégal leen ci at mi nga xam ne mi ngi waaj a jeex xam ngeen ne ay minutes yu ndaw rek ñu génn ci wala ba ay waxtu yu ndaw ñu génn ci dugg ci at mu bees loolu moo tax tey QTV ànd ak groupe am tey ngir bégal askan wi bégal Gambia ak li ko wër li ci neex nag mooy tey dañ ñëw fi nga xam ni bu ñu waxee ñu dëkk bi yëpp koy liggéeyal tey ji képp koo xam ne ndaanaan nga yaa ngi ñuy seetaan ak foo mën a ne waaye képp kuy liggéey QTV yaa ngi ci gannaaw tey ngir bégal ñu kon yaakaar naa ni loolu dafa am solo kon nag tey ji ma bëgg ngeen tàccu seen bopp bu baax a baax ma introduce leen koo xam ni bu ñëwee ci kaw podium bi di ngeen kontaan ana ñu nekk ci biir tàccu leen seen loxo yi yëkkati leen ko may seen dégguma dara tàccu leen may dégg yéen a ngi cool yéen a ngi cool parangel parangel pour ñu sow ah parangel pour ñu sow ay ca taccu len balo, Niang Ballo jigéen ju man khomni, jigen ji nga xamni mom ngeen di setan sen xol di neex jigen ji nga xamni buñ ne sañse mo ci man jigen ji nga xamni bu waxe ga ni gonga jigen ji nga xamni mo fi taxawal jigen ñi tay ngir begal len ci guddigi and ci ak ñun waye nak tay dana yo dana doy war ñang balo kay yégal jàkkaarloog say fans ñu bégalante ak ñoom loolu daf may neex waaw ne ko ndànk-ndànk rek cappal rek sa rob baax na doom e tàccu leen waaye e eh, tàccu leen waaye tàccu leen waaye dégguma dara tàccu leen loxo yi ñang baalo yaa ngi nii réew maa ngi nii xale yaa ngi nii gambi yaa ngi nii ñu fas yéene bégal leen tey ana la ngay nuyoo gaay nee naa lu ne fàng kenn du ko jeex te lu waay gisadi gisadi boo gisee nen ne nen a ngi waaye loolu doy na nag damaa bëgg ngeen gëm ne du ñu ñoom te du ñu ñoon dëgg la waaw waagaan ah? ku ko mën la ak ku koy jéem duñu ma sa doon benn yaa wax dëgg QTV moo ne fàng na dàng na jant jàkkaarloo ko àddina wërngal këpp fas yéene na bégal ci USB yi ñu ngi waaj wax nag bye bye 2020. di bëgg a welcome 2021. waaw waaw kon ñu ngi nuyu àddina wërngal këpp ñi nga xam ne jamono ji ñu ngi toog ci seen saal ñoom ñi nga xam ne ñu ñuy bëggee saa su ne waxtu bu nek ñom ñoy tok di ñu seetaan ñoy ñi dolel ñu ngi leen di nuyu te di leen wish a very happy special happy new year wagan gani la ah ñang balo tay dina metti dina metti kay tay lo naral gaay ci guddigi tay dina melni ni sonkorong nga ca banjul dina melni ba waja do jaayam ba ma ne du dem ah kay tay fo teug rek ma gësam ko fa tay nak dama bëgg xalé yi taccu bu fekke contane nañ ci QTV contane ngeen ci QTV waa tàccu leen boog ah ay ca mu noonu ñu bëgg nag dugal beneen daanaan ah, moom mu nuyoo ndax dañoo ànd ci bis bi ñun ak moom pël bu rafet lañ koy woowee ah, borom wel borom weer yu rafet yi ah, borom costume yu rafet yi foor na borom wel taare mbaddoon on jaaraama eh, jërëjëf waagaan Eh, jërëjëf Khady eh, Niang eh, ne happy new year in advance yàlla nañ ko at yu it's coming to you live from Senegambia and of course it's QTV uh, bringing you uh, such a mega event to uh, celebrate your new year's in great style. It is very important for us to gather here today and do such an event to make everybody happy. We are coming from a particular year into a particular uh, 2020. Um, we are hopeful it will be a great year. Um, mbokkaay ñu ngi leen a dalal si uh, event bingen hamne uh, event bu uh, QTV sehoko ko ak ñoo ñi nga ay fans pour lek bégal leen konton ka ko bimbe Sénégambia le Uh, QTV le uh, pour que New Year's Eve programme o natale ali alon ko sang uh, koto nyimbita kanne uh, mbina mbe dunkan sang kuto kono fenne me yalon ko akumayata wala na bi nata jang mo mo mi yalon ko wato ibe QTV jibe kang Eh, mbaalye sénégambiale musidɓe si tawi ɗon darude qtv oɗo wattu min andintinaw hiɗen sénégambia oɗo wattu addangol o newyas if programme o hiɗon andi 2020 no mayude eh, e nder leerji seeɗa tun en naata e nder hitande 2021 yo wonu hitande jam hitande barke hitande yaadudu e mbuuɗi bus bus bus wagan wax loolu mbuuɗi bus mbuuɗi bus <laughs> loolu mooy xaalis looloy xaalis bu bari waaw waaw jërëjëf Balde jërëjëf kontaan nañ ci yow bu baax a baax tey nag dama defante gaay si red carpet bi looloy dëgg waaw fii la ñoo def interview si ndax léegi dañ bugg dem fa nga xam ne mooy Coco Ozone. waagaan fekk fa suñu xarit Coco wax ne jamono ji QTV mu ngi live fépp ci réew mi. waaw waaw waaw waaw tey nag kanku mu ngi nekkal foofu madame Diagne Séri Mamadi. Coco Ozone ci Coco Ozone maa la ko wax. ah kay dinañ tamit Tamara. am nañ fa keneen suñu beneen naataango bu ñu ko teewal. waaw feneen ak feneen ak feneen ci réew mi. ci lu wér QTV la leen di wane lépp. tey fu lépp di xew fu ne. dinañ fa teew ngir wax leen dafay xew. ndax dëkk bi yëpp ay neex tey ñëpp a génn ngir enjoy seen bopp teeru li nga xam ne mooy gan gu màgg gi ti 2021 loolu moo tax tey ku ci nekk fa nga ne ñu jox la sa cër moo tax fu ci waaye di nekk rek jàppal ne QTV dina la fa fekk nga àndandoo ak ñun ci mbégte mi kon du ñu def dara lu dul seeti kanku ah, lan moo xew ko ko Auson ñu àndandoo seetaanandoo ko xam la fa xew ak mbégte ma fa nekk ñu dellusiwaat ci plateau bi bégal leen. ana madame Diagne. ayca ayca ayca. mu ngi noonu gis ngeen ko kànku gis ngeen fa mu ne xam ngeen ne foofu baax na de ah fa mu nekk baax na de fa mu nekk neex na de léegi nag nix tamit ah kay nix tamit mu nga tamala waaw waaw ayca ñu dem seeti nix borom baxana bu xonk waaw am assalamualaikum uh, eh, yi sohna Hadi ak uh, eh, sen taxaway rafet na torop eh, balge de la jaajëfal Balde bi nga xamne mo ci ret capet bi waaw sohna Hadi lo solo ya ko tay tay wa gis nga waxal way bi la la may nekk ci waxal way lay lay la la ceto melni lii. nuyu askan gi rek képp nga xamne ya nga setan seetaan QTV si jamono ji. waaw sen xarit sen andado sen am di jama di DJ Nix la maa leen fi nekkal rek right now ma ngi ni Tamala tay nak ah, di len wish happy new year in advance ah, gis nañ ah, full time entertainment dina daw ci gannaaw ba dañu nuyu askan gi rek ne len QTV ya ngi live di nuyu kep ki nga xamne ya ngi senegal bi di setan suñu gaay yi fofu di jaajeufal uh, ne len at bu bes bu ñoo dugasi nak yal nañu yalla ibil bunti wërsëg yi lu ñoo def nag moy tay we are here to entertain full force sona Hadi Wagan Luma def rek mooy jox len ko rek ñun ñu duga after nañ delu ci wat yaa ko teree neex. kon tamala du yomb tey de. tamala dara du yomb. <laughs> nee sax réew mi dara du yomb tey waagaan. déedéet kon ñu ngi nuyu yaay yi ak papa yi. nuyu xarit yeeg am di jàmm yi. di nuyu ñu nekk ci diaspora bi. ndax jamono ji waaw ca nga ci xaw waaye xel maa ngi ci suuf. maa la ko wax ndax ñu bari bëggoon nañoo ñëw feetandoo ak ñun. ñu mhm. es bi ñu waaj a dugg. Mhm. waaye nag woppa mbas mi li mu yàq ci àdduna. bari na torop xam nga boo gisee ni ñu yàkkamti mu dem. Ah, daf ñu sonal. wallaahi toppee ñu mbooro. teg suñuy béréb. non waaye lii lan ah. la xam nga ne xale yi namoon nañ lii. wax dëgg yàlla génn ah enjoy bégee. bégee waaye lii mënutoon a am. kon yaakaar naa ne tey ñun ñëpp war nañoo ñaan at bii di ñëw dàq at bi passé. waaw am na ku ma wax ne ma. Mhm. mag ñi dañ daan eh, faral di wax ne. bu dewen na mee ñaaw yàlla na mel ni ren. waaye mu ne ren ku ko fi wax <laughs> dina la dóor ba la. <laughs> ndax eh, eh, daaw baaxul. ren moom dara baaxu si. dara baaxul waaw ren moom bu ko kenn ñaan. te wax na nag dina am ay artistes yoo xam ne. Mhm. dinañ leen bégal ci guddi gi ay ndaanaan réew mi. ay ndaanaan yoo xam ne ñu ngi ci réew mi di liggéey ci musique lu doy waar. Mhm. dinañ ànd ak ñoom ci guddi gi benn par benn. waaw ku ci yéeg ba wàcc nga ne fii lay yem. tey bu ngeen dawut ñun duñ daw. ndax dañ leen dañ fas yéene bégal tey. te yaakaar naa ne jël nañ suñ matuwaay ba mu mat kon tey ñoo yéen fii ba fajar. xam nga nee naa QTV moo wane. Mhm. li nga xam ne dafa jafe woon a gis. Mhm. QTV moo wane suñu artistes yi ñu am. mooy taw suñu musiciens yu ñu am. suñu ah, ñi nga xamante ne ay théâtre kat lañ. Mhm. ñooñu QTV moo leen wane. waaw kon QTV nag. wax dëgg fa yàlla nag nañu nangu duñu ñoom tey duñu ñun ah. wax dëgg yàlla liggéey bi rafet na di whole crew of QTV tey ñëpp dañoo bokk ci xeex bi ci lu wér ngir a bëgg ñi seetaan am mbégte kon ñu ngi nuyu fan ci club yi nga xamantene ni ñom ñoy bëggé xadi ña ak waagaan di bëggé Q TV fu ñu mënti nekk rek ñu ngi leen di bëggé lu bari loolu am na solo waagaan xam nga nak wax dëgg yalla nak télé bi fokk mu délo njukkal askan wi askan wi tamit délo ko njukkal mhm. ndax ku ne xam ne ni TV bi mu ñëwé ni ngeen koy waxé dañ ko dañ ko bot rogganti ko réew mi bëgg télé bi ba lepp luñ leen wan ñu jël ko moo tax ñu góor góor lu suba ak ngoon gu dégg bëccëg ngir di leen bégal mhm. kon tey yaakaar naa ne bu ñëwee fii ci bi duñ ne guleet ndax lépp lu xew ci réew mi QTV taxaw na fa moo tax tey yaakaar naa ni ku ne di nga ne QTV te ku taaw it di nga xam ni taaw mat na taaw waaye QTV mat na taaw yaakaar naa ni tey ñang baalo tey dara du yomb waagaan mhm. dañoo war ñaanal njiitu kër gi mhm. koo koy alhaaji Mouhamed Dia kenn du moom peccum liir bu neexee ndey jaatee cawage ya waaye madame Dia ñu ngi la wis happy new year yàlla xam na ko di la ñaanal yàlla barkeel sa njaboot mhm. yal na yàlla barkeel sa sëy mhm. yàlla may la nag lépp loo daj ci kër googu mu doon lépp ay yiw amiin yaa rabbi góor gu baax goo gis jigéen ju baax ju am jom ci lu wér moo ne ca wetam moo ne ca wet madame Dia nag seetaanut monsieur Dia déedéet waaye monsieur Dia seetaanut njabootam déedéet yàlla daa jaboot waaye Mouhamed Dia daa jaboot xam nga réew mi lu mel nii lay soxla nit ku baax boo amee lu la yàlla dénk nga bokk ko waa réew ma te loolu la alaaji Mouhamed ja def kon ñu ngi koy wis happy new year di ko wax ne at mi di ñëw yàlla na ci yokk ba yëg ak njabootam ak soxnaam su baax si nga xam ne comme ni ko waxee mm. mu ngi ci wetam di ko jàppale lu am solo la ñun nag suñu ndam tey mooy mu ñu mel ni ñoom mm. ndax tey bu réew mi yëpp defee ni moom yaakaar naa ni kenn du taxawaanu kon yaakaar naa tey bis bi dina spécial torop dina doy waat dina métti xam naa ci kanam tuuti ñu seeti kànku lu mu xewle parce que xam naa ne fi mu nekk nii yaram tàng na te réew mi yëpp yëngu nag réew mi yëpp a yëngu. loolu yaakaar naa dina am solo. xam naa ci kanam tuuti rek. ñu nekk control room dinañ dugal kanku. waaye comme ñoo fi taxaw nag pour wax ak askan wi ñu ngi nuyu nag suñu jëkkër. maa ngi nuyu sama sweetheart. ah ma only one. wallaay ndeysaan sama lover. ah allahu akbar ak boor lii. <laughs> ëpp na yaa yaa nobaate. billaahi maa nobaate. ah nobaate toog ci nobaate. déedéet kay jël nobaate na poñe ko ŋat. aywa damaa bu ma ko téye dama koy daan. loolay dëgg <laughs> ay ca mu waa kër gi yëpp Ami Niang ah. Baalo. ma ngay seetaan sunu yaay mama Yamu Ndaw Diouf xale ci kër gi yëpp léegi ñu dem Westfield waaw ñu ne nga dugal. waaw xam nga Asmaaw moom Westfield. Mhm. te Westfield ku ne xam ne ne at bu bees bi am na lu fay xew gars yi dañuy bëggee foofu kon yaakaar naa ne dem fa nga xam ne mooy Westfield seeti Asmaaw ah, su ko defee rek moom it mu ñëw wax ñu lan moo xew Westfield Asmaaw

Nah, nah, nah, nah, nah. Bye. Lola, I'm ah, wow. Eh, eh. nee naa ko bis buñ lay takk bu ma ah. ko yëgalee bu ma seedee dañ lay delloo guro gi ne demaat toogaat jàngaat ku ma yëpp la xam nga mu ne suñ sañse baax na waaw waaw waaye moom itamit macha allah sañseem baax na sañseem baax na moom ko ba mu baax na ah, xale bi teg na ko ci temps ah, ah fa mu nekk baax na Balde Bana loo wax ci ay ayca lii moom nice na be noppi ñu ngi jaajëfal ñooñu ñi nga xam ne ñoo nekk suñ sponsor yi eh, ñi nga xam ne bokk nañ pour ñu mun a am venue bi tam mm-hmm. Coastal Elite Properties Euh, ñu ngi leen a fàttali ne gaa ñu ngi war a am benn programme bu ngënda programme bu rëy foofu si Abuko 18 euh, ba 21 février 2021 te ñooñu ñi nga xam ne ñoo nekk euh, Gamcib Breeders Association bokk nañ si lii lii nekk na li nga xam ne lu rafet la soo gisee tey affaire si mun a xew fii ñooñu ñi nga xam ne ñoo nekk Coastal Elite Properties Real Estate bokk nañ si waagaan Euh, maanaam ba pare tey ma fàttali leen ne Barcelona façon ñoom ñoo jaar fii euh, ñoo ma euh, solal Barcelona façon di bég si gaay Mouhamed ak crew bi yëpp kontaan naa si gaay di leen ne waaye ma ne suma boos Hadi tey fii nar naa ne nar naa xuma ma gisee affaire si nu moo demee nii mu ngi mel ni ngelawi 2020 baa ngee xaw a dem 2021 mu ngee dugga man ngelaw bu neex bu ma nekk uf nii <laughs> am naa ne 2021 la mën nga ñoo ñamal tuuti ci li nga dund ci 2020 bi yow. a ah, waagaan. 2020 ah. moom. Hmm. Euh, demoon na ba bugg a ne. Hmm. corona ñoo jël si affaire si. jël affaire yi jël affaire si rek yóbbu ma ba décembre ba léegi ñu ngi wax ay affaire yi lockdown rek ak yooyu noonu waaye xam naa ne moom 2020 métti na trop. yes waaye euh, yàlla ku baax la euh, ba léegi rek ñu fàttali gaa itam ñooñu ñi nga xam ne ñu ngi leen a ooyee. Euh, buy perfume. yes euh, ñooñu ay perfume la ñoo jaay maanaam ay spray ak yu demee noonu. soo buggee nga xeeñ lu neex. nga romba si yoon bi gaa ñu ne ah maanaam waagaan fu mu jëlee lii. seen perfume bi sax laa laal bi may ñëw. waa dafa garaaw. waaw ñooñu ñooy Medina Cuuraay. waaw ñoo ñëwaat ubbi beneen boutique tuddee ko Baye Parfum. Baye Parfum. waaw mu nga ci opposite American Embassy. waaw ñu nuy Katim bu baax nuy Ibrahima ak xale ya fa nekk. waaw xam nga lu ma si gënaa ne. ah kay gaa dañ am lu ñoo ooyee Parfum Ba. waaw am na Ba am waaw waaw. waaye ñoom tam dañ am Parfum baax bi nga xam ne da ngaa jël Parfum bi nga sooti fii sooti fële. waaw yëpp machine la lépp nga mix ko nga am nga bi nga xam ne man aw ko. Balde yow yàqu nga de. Ah. Ah, man pol bi jaaxal na ma <laughs> non xam nga. pôl bii gis nga pôl. Ah. pôl bu demee bem mu xaw a modernize tuuti rek daf day garaaw de. dafay garaaw de. <laughs> de man sama pôl bii ma xamoon mu daan ne weltaare. Ah. ak bii taxaw. <laughs> utee na rek am nga bi ñu bàyyee sàmm ba léegi. utee na tuuti. ñu ngi sol ay costume fi mu nekk nii. Ah. Mhm. joolaa yi jël ko seen loxo ñoom it commencé di sàmm. di ngeen dem nag ba bis ngeen soxla seen nag yi doo leen si jot. déet. dama leen a wax lu leer rek nag yaa disappear te xam ñi nga xam ne nekk di def joolaay la <laughs> waaw bu ko defee waagaan <laughs> euh, comme num koy defee rek bu ngeen ñu gisee tee ñu yaa ngi rafet nii mhm. suñu xarit suñu naataango ki nga xam ne ñoo moom fi nekkoon dooroon doon defal Qcell waaw waaw ay drama sketch yu am solo mm, muy euh, Modou Moussa Cissé Modou Moussa Cissé nag jamono ji ma nga ci Amérique Modou Moussa wallaay lazim Wow. léegi damay dagg tuuti rek. waaw dugg tamala. xool ni lan la fa nekkee. Ah, ñu del si ma wax ci sama rob Ananix. Ananix foo nekk. my boy foo ne. foo féete. my boy. waagaan soxna Xadi waaw right now maa ngi nii rek Tambala ah, ah, gis ngeen fu mu nekk nii fii ah, num jaxe ndeysaan torop nit yi sanse nañ a ngi gis suma gannaaw nu mu ko demee diina yi setup yi na torop taal macha allah fu mu nekk nii sanse yi bon a suma bët am suñ bàyyee xel tam rek dégg nga background sound boobu noonu kooku di Thierry Madi moo nekk di perform kay am nañ video Nobles bi nga xam ne ñu ngi stand by right now daal kon recent previous eve nar naa fa ca correct right now gars ko over enjoy fu mu nekk nii rek xam ah, naa si kanam tuuti dinañ dugg dem waxtaan ak gars waaw fu mu nekk nii dinañ dugg si kanam rek waxtaan ak gars yi ma seet naka la faa mën a demee waaw soxna Adi am loolu am na solo xam nga kii uh-huh. suma booy la dama ko bëgg waaye fi mu taxaw ci ginnaaw ndox mi wóoluwuma ko dara non du daanu bu daanoo ci ndox mii eh, man damay jat fan yii de ak mbaxanaam mu rafet nii dama koo jat du <laughs> waaye gan sama rob nag laay wax. waa ay ci sa rob baax na Moussa Cissé ci Amérique. borom Amérique waaw moo jënd rob bi. ne ma demal seeti Diva collection. waaye wëndeelul. waaw foofa ca Bijilo highway. lay lay la la. waaw Modou Moussa. li nga def rëy na xam nga lii mooy sànneeku borom Amérique felaale ca ba muy moom waaw waaw ni ma solalee la solalee waagaan lii de la ma def waaye ma diva borom diva collection foofu ca Bijulo highway waaw borom bi atlas bi rek just on your left moom fu la sa shobam bi nekk fa lañ jëlee dress bi yoo xam ne ma nag solal. maa la ko wax rek nag. lim la jox nga sol ko. waaw rafet na. xaw ma ci si bi la wala ki ko sol la. waaw mën naa ah? <laughs> ñaar yëpp la nag ñaar yëpp la. gis nga fi mu génn ak man. waaw waaw. Eh, nee naa la dàll yi rek. bu ma ko jaayoon mën naa cee jënd moto. wallaay ndeysaan ak jiin bi ak li li ma sol lépp tey moo Modou Moussa Cissé daal moo ne tey seen guddi gi man maa ko res mhm. ndax maa ak yéen la woon démb ba tey ñëwagul te QTV télé bu mag la adduna bi yëpp a koy seetaan kon bu ngeen ciy génn war ngeen di melax macha allah. mel ni nga xam ne moo dëppook jamono. moo tax tey mu génn fi Modou Moussa Cissé ñu ngi lay jëfal fi ma ko jëndee nag. Mm-hmm. mooy sob bi nga xam ne moo nekk Latrikunda opposite marché bi. di sob boo xam ne sama rakk fa nekk ñu koy wax Keba Fall Keba Fall yàlla na sa jàmm yàgg. macha allah li ma tànnal rafet na réew mi nee na toj nga àdduna kon Keba Fall képp ku soxla yére yu rafet demal ci moom ndax boo fa génnee doo mer yaakaar naa loolu am na solo. am na solo lool ñang nag dama bëgg fii yëngatu. fii dafa war yëngu. sama rab yi dafay jog de. ci kanam tuuti ay ndaanaan dinañ fi jaar. performal leen ngeen kontaan yéen ñu toog seetaan waaye bépp ndaanaan bu fi taxaw bëgg naa ngeen may leen bii. baax na daal bii waaw damaa bëgg ngeen may leen bii di tàccu nag ba mu baax ñu support nag suñu si musiciens yi dafa am solo. du dëgg am na solo. waaw léegi na waaga damaa bëgg nga may ma loxo ma toog dama xaw a màgget. ah xaw a da xaw a da xaw a jëm mag. waaw waaw nii rek nga may def waaw boo màggatee léegi kuy bégal xale yi. moo ma si jaaxal. yan a ah? dafa la jaamu doom. Xadijang boo màggatee kuy bégal xale yi. moo ma si jaaxal damaa bëgg ngeen awu ko nag <laughs> bu fekkee bëgg ngeen guddi gi neex tey du yomb de maag yéen ba fajar ñang balo boo màggatee kuy bégal xale yi ne leen man de xaw ma ko pare ngeen ah, da di nelaw yeewu leen boog ah. QTV lakk na dëkk bi mboo xanaa neex ay da ngeen di nelaw déedéet yeewu leen boog QTV lakk na dëkk bi woy xanaa neex bu ah. ngeen ma tàccu damay dem ñibbi tëri waa léegi ok garaaw. ok déedéet neexal naa la déedéet kaay kaay non non non oh, non non bàyyi bàyyi ma ma dem waaye. neexal naa la oh, waa léegi ma ñibbi ah. ma dem. déedéet. ma dem. ma dem. waa léegi waa waa léegi tàccu leen kon. tàccu bu baax a baax a waa léegi nag kon duma jàpp gaam ngeen jàppale ma ko. wax dëgg yàlla. da ngeen di nelaw. yeewu leen boog. Ah. QTV lakk na dëkk bi way da ngeen di nelaw. déedéet yeewu leen waay. Ah. QTV lakk na dëkk bi way xanaa neex. ayca jërëjëf. <laughs> kontaan nañu waaw lii dafa war a am. waaye ndax xam ngeen ne tey. man de bu ngeen ma teewloon bala Moussa Coulibaly mii dina ma neex. xanaa waaye balaa Moussa moom kenn neew ko gis. Mr Cole la. ah déedéet bala Moussa la Cole nekk fi lu dul sobote waaye dañ koy lakk yeewu fële. <laughs> ah la rek. xam naa leen wala mu waaw. ayca léegi tàccuwaat leen seen bopp bu baax a baax ñu gunge leen ci guddi ndax dina neex tey trop macha allah ñang baalo tey du met du yomb. waaw parce que jamono ji ñu ngi ci digg xolu Sénégal bi comme ni nga koy waxee saa su ne saa yu ñuy dem ci end of the year da ngay gis ne fii yëpp adduna bi yëpp a fiy dajee. Mhm. ñu bokkee bégee bégee bi. ah ok bokkee bànneexu bànneexu bi maa la ko wax bokkee nag welcome 2021. kon ñu ngi wis ku nekk foo munti nekk ci adduna wërngal këpp. Mhm. di la wis a very special happy new year. ah ok all and happy 2021. lii balaa ma koy jaay. Ah. xaalis la de dama dama gaaw ci jaay fi nii nekk. non doo jaay dara. xam ah, naa da du ma jaay dara de ah. <laughs> waaw comme ni nga koy waxee rek di nuyu suñu fans yi. Mhm. di leen bëggee suñu baay alaaji Ali Mbay bëgg mbaxal mhm. di ko bëggee bu baax di nuyu na his excellency président alaaji Adama Barrow ak képp koo xam ne yaa ngi ci government bi ñu ngi lay gërëm di nuyu képp koo xam ne daal kilifa nga ci réew mi ñu ngi lay delloo njukkal. Ah, di nuyu kilifa diine yëpp. di leen ñaanal yàlla defal leen jàmm ndax ñaan nañu luñ man def nañ ko. Mhm. ndax bis bi ndax réew mi ñaan daf fi sax kilifa yu mag yi di fi ñaan saa su ne ñaanal leen tawfiix gudd fan ak wér gu yaram ak képp koo xam ne rek yaa ngi jàpp ci liggéey bi tey ñu ngi lay jaajëfal di la gërëm tey ndax nag ñu ngi waajal nag loo xam ne wax dëgg bu egsee ñëpp dinañ xam ne at mii dafay neex incha allah. waaw li ko waral li tax ñu ne at mii dafay neex mooy. Mhm. saa yooyu dugg ci at day am solo lool. ñu jéem a fàtte lu métti la fi jaaroon. Ah, te ñuy faral nag di saxoo di julli di ñaan ci suñu borom. Mhm. ndax moom kat mooy borom maye gi mooy borom am am gi bu ñu ko ñaanee dinañu may. te xam naa ne woppam mbas mi décembre la woon laa siya mhm. dixième ba ñëwaat wan mm-hmm. waaw waaw léegi ñu dem déglu ko léegi waaw ay ca ñu dem ci waaw ay nix ana nix waay sama sama booy bi <laughs> moytul ndox mi nix moytul ndox mi waa lii rob rek ay nix waagaan am ah, soxna Hadi ah, ba tey rek ah, ñu ngi nii fu mu nekk nii rek Tamala am Faha bugga naa nga jëlal ma gaay seen sanse yi rafet na kaar macha allah balaa ñoo start introduction bi ak gaay rek ndeysaanam waay fu mu nekk nii sanse yaa ngi cawante nu mu waree te Gambia lii lañ fi soxla fu mu nekk nii comme it's all about like xol yi nekk benn and everything ba ma njëkk koo dooree si kii rek si na nga def bi. Samira. Samira Samira naka naka nga gisee sa New Year's Eve. nee new year. waaw Samira bi dafa ni dafa ruus de waaye ok comme for example uh, lan ngay uh, naka ngay expecté like this 2021 bi di ñëw. all right am um, uh, ba tax amaat nañ fi keneen ki nga xam ne rek comme. dafa fonka boppam fonka lu def kii di miss bi borom Gambia borom Germany borom every miss bi na nga def. maa wow expect moo woon ne naa la fi gis miss bi kañ nga ñëw. man maa ngi ñëw two weeks ago ma I foog ma ñëw celebrate New Year's Gambia. wow that's good ama um, uh, miss bi bëggoon naa pour nga wax ma like uh, sa préparation New Year's Eve bi naka la demee. ah préparation bi de moom dama ñëw rek ma ok this is Gambia this is my hometown. is the best is the smiling xam nga soo bëggee smile rek ñëwal Gambia and I was preparing so because sama bitik bi xam ma ñëw jaay ak yooyu waaw neko boobu rafet na torop ama uh, waagaan uh, Sohna Hadi kii mooy borom Miss bi outlet bu leen wax dara dinañ fa doxantu ji am uh, tax na rek comme 2021 bi gis nañ 2020 bu ñoo jógee nii naka la mel ak yooyu waaye 2021 bi lan lañ see séentu ñu ngi ñaan 2020 bi nu mel moom ñëpp ñëpp ko yëg ñëpp ñëpp ku nekk la yëngatu soo ñaanuñ yàlla ñu am façon bii soo ñu ngi ñaan yàlla borom bi mu may ñu jaama si Gambia bi mu dimbale ñu daal façon bi bu mu ñëwati mu mel ñu wébu yaram ak ñu am garab pour against corona bi. all right uh, miss bi sa kaddu rafet na xam naa ne dama laa bay rek nga dem enjoy sa ba hope to see you yeah happy new year happy new year in advance ok am uh, Soxna Hadi uh, Waagaan yéen a gisoon boobu rek gaay wax nañ ko waaye bektaan na rek pare guñ foofu dinañ gën a duga jéem a waxtaan ak gaay parce que right now xam nga gaay dañ dee caalit gaay a ngeen tal seen biir ñu bare ngi toog toog di lekka fu mu nekk nii bon donc waaye dinañ dem rek bàyyi ma delloo leen ko Soxna Hadi ak ci kanam tuuti rek. loolu am na solo waaye. jërëjëf miss bi itam robam baax na de. non kii daanaan la li mu saysee ak la mu macha allah léegi nag ñu dem ci Balde. Mm-hmm. xam naa ne moom it am na plateau ba fa am na ndaanaan yu egg si léegi. Ah, ñu bàyyi leen ak Balde ñu am lu ñu def ak moom. tey sama waa ji. <laughs> kooku mooy ñancoo waaw maa ngi nii euh, jërëjëf Wagan jërëjëf Hadi thank you very much Nix. Euh, ma am fi ñaari gentlemen ñi nga xam ne euh, ñoom tam ñu ngi pareel seen euh, New Year's bi ñu laajte leen tur bi tur bi. D Jobs. xam naa ne nag D Jobs. nekkul tur bu ndaw waagaan. D Jobs D Jobs ndaw si dëkk bi. du ku ndaw de. D Jobs tey wax ñu naka la bés bi war a taajo. waaw ah, lu am solo Balde Banna maa ngi bég si yéen. ba pare di bég si waagaan ak ji mi nga xamante ne suñ suma good sister la. ah ba yéen a ngi def lu nice QTV. yéen a ngi def loo xamante ne daal ah, kenn musul koo gis fii ah, mu ngi nekk loo xamante ne ñun kontaan nañ si. ba kontaan nañ pour teew fii tamit ah, si li nga xamante ne mooy New Year's Eve bi mu nekka lu rafet because lii aar la yéen ngi dundal aar bi man kontaan na um, as the manager of Nyancho and the entire team ñun ñëpp ñëw nañ tey. pour ñu bégal askan bi ba pare tamit ñu team up ak QTV ah, si loo xamante ne lu rafet na kontaan naa torop te ñu ngi prepare bés bi because lii nekkul ku ndaw QTV of course ñoom nekkuñ lu ndaw waaw affaire bi yéen la. dëgg la <laughs> affaire bi ñun la ah, wax ñu tuuti naka nga dundee sa 2020 ak sa 2021. Hmm. Eh, soo si duggee eh, lan ak lan nga bugg a def ak yeneen yi nga xam ne eh, bugg nga koo bàyyi. dëgg moom doon na loo xamante ne setback la. astuma ñi nga xamante ne ñu ngi si aar bi ñu ñëpp xam ngeen ne euh, euh, si si Covid issue si lockdown bi xapp noon euh, tànna bi aar bi doxutoon comme nuñ ko fogee ak te ñu ko wise tamit waaye alhamdulilahi rabil alamin ñu ngi am resolutions of course for 2021 mu doon li nga xamante ne lu am solo 2021 bi moom ñun xam nga saa yu rek si aar bi la ñu waaye aar bi rek la ñu ngi am moo projects yoo xamante ne loolu lañ war a génnee ah niñ ko bëgg a dundee tamit mooy ne ñu génnee moo videos fo ñanto ba pare moo events yoo xamante ne tamit dinañ mën a bégal fans yi ah, ba tax na ne ñu ngi am projects yoo xamante ne dina nekk album launch you know project bi ba pare tamit visibility aspect bi loo xamante ne loo am solo la ba pare tamit ñu ngi sentu tamit si ah, moo changes si entertainment sector bi balde because loolu am solo la xam naa 2021 dafa nekk at boo xamante ne Um, nguur gi tamit dañoo dañoo focus si entertainment sector bi ba tax ne luñ bugg a am incha allah rabi dinañ ko si mun a am. jërëjëf di Jobs ñu am fi ab. yére bi yére bi ñancoo di Jobs jox ma yére bi. <laughs> aka munta koy be pareeri na de aka munta ko bii ñin lu ngaate ke la lundi ngote laftale ya foññe eh, ila 2021 eh, e pareta kama ñaadire kaatum nite fintita don fan sol be wuuril yeman yeah, taratala tala ko yafo ñamin doron alislamu aleykum mbaɗigoɗen signolum ko tolu ñambolu men tan nden kanuɗi mbaalu teri batan binke suba menen ko toppata to ni mbari jaɓa jambolu mbatol ɓe kontona boulamara tili ɓo tili jiila allah ɓoyla ñancolo mo eke e a paccaki sam fete goɗinogo kulo kiɗo kuma kan obo kaw sila full time 2021 konka fo ñamin doron ɓe jamal tourtourrel ko ina amin because projet kol bijel miliyankoɓe laari nde ganta fintilale you know 2021 watu otija buka banno manager yabe foyla yino ah. yeah man okay uh, ngalon ne namita domandin faran nyanchobi na play lale uh, stage o kan alba jela jang aba uh, aba pacakila jele uh, kano mentengo ak yoyu nonu yoyu mom soko fade fe domodala de ha uh, waga no apacaki apacaki apacaki ngayam aduram ha uh, nyancho nso domandin na <laughs> uh, uh, uh, keba dapata ba you know afai onkulu bembulu nyada muna nyada ba boko mani faro sista mesendin da kala muna da kala ba boko jinna ko jaro ko tamakulu jaro ko abdu palo ko toke da pato ko lakira chalo korda ko no lon tapata fa bitilo lebo ka karfa jomuta <laughs> yellondi ku silo silola ko sondidinola ko mini minitilo ko ne fendigo min sote sabe ne ko falo jama ko no muna nyambo buka kati sama kono e eh, muntumalom bitilolom ba tela min tole e eh, qtv la stage o kantara kaj waaw waaw ah Ndewo Silata stage bi dina dama de. e leen tàccu leen di Jobs ak eh, ñaanco bu baax a baax a baax. Ah, ok be léegi rek eh, ñu fàttali leen ne. di Jobs fii dañoo am ay interviews yu am solo. képp ku nga xam ne bugg ngaa ñëw mun ngaa ñëw fii ñu waxtaan ak yow live and direct on QTV fépp foo leen mun a nekk ñu ngi jaajëfal ñooñu ñi nga xam ne ñu nekk di seetaan bitim réew. sista Jeena ba foofu si UK maa ngi laa nuyu Fatima Broda Tafa. Ah, di nuyu ñu ñi nga xam ne ñoo nekk Boubacar ak Nene bu ndaw foofu si Sweden ñoom yëpp dañoo bàyyi xel ah, ñu dellu si waagaan ak Hadi Ñang waaw Balde Banna njaaraama mm-hmm. ah, ñu ngi wax tamit sunu artistes yi jërëjëf. ñancoo waaye jamono ji nag waagaan jàppane ñëpp a ngi lay waaye loolu am na ñu ngi seetaan nag ñu ngi leen di nuyu. réew mi fu ñu nekk ci àdduna bi. Mm-hmm. jàpp leen ñu ngi leen di wish a very happy special new suñu papa Omar Niang yàlla na fi yàgg te wér waaye di nuyu suñu yaay ma ana ku bëgg jëkkër ci at mi yéen xale yu góor yi ku bëgg jëkkër yëkkati sa loxo ma gis xale yu jigéen ñi laay wax xale yu jigéen ñi ku bëgg jëkkër ci at mi yëkkati sa loxo waa fan xanaa fii amul ay xale yu jigéen. <laughs> Ah, waagaan kan moo bëgg a sëy ci at mi. waagaan naam. waxal gaa ñëw bindu. ñu ñëw bindu. ñu ñëw bindu si taabul bi. si taabul bi te ba baa nga fa kon ku bëgg jëkkër ñëwoon nga bindu. waaw foom baa ngi <laughs> suma boos hadi ak foomam yi. non waaye <laughs> foog naa <laughs> xale yu jigéen ñi xale yu góor yi leen fi ëpp ana xale yu góor yi. ana xale yu góor yi. ana bàcceloo yi. ana bàcceloo fii bari na ay bàcceloo de xaaral ñu dem ci nix te ñëwaat. waaw ñu dem seeti ko waxtaan ak ñoom. Mm. du yomb tey. ana next wow uh, waaw waagaan uh, di len jajeufal rek di lu koku di di jobs ak ñancoo ñancoo nag dafa nekk kan, someone ki nga xamne rek mom fum mu stage rek daf ko dee raj waaw be tax na rek uh, di len wan ne leen maa ngi ni tamala kan fum mu nekk dama dox ben ñaar rek tase ki nga xamne ku njaxlaf fonka bopam ham bopam di fonka ligeyam ki di Hilda bokasi si someone ki nga xamne rek she is part of the famous Gambian tiktokers di jaajëfal Gambian tiktokers yi ñi nga xam ne ñu ngi internet Hilda na nga def. maa ngi waaw Hilda am comme sa New Year's Eve ah, gis naa ne ndeysaan Paa jëlal ma ko. gis naa ne sa New Year's Eve da nga ko ñëw nga ah, tamala fii pour maanaam reer si am si si dina waaye lan nga am pour wax about New Year's Eve bi. daal ma am pour wax mooy. Ah, na ñëpp ñaan ne 2021 dina nekk year boo xam ne yëpp dinañ ko enjoy ñu celebrate ko so luñ ko starté nii rek na yàlla continuer enjoyment bi nii rek si 2021 bi. waaw ah, that's great like ah, tey fu mu nekk nii dañ ne yaa ngi waagum Tamala waaye boo jógee Tamala fan la. man <laughs> man su ma jógee Tamala moom ah xaw ma sax may dem xanaa dem doxantu si dëkk bi. xam naa ne di nga nar a noos ba suba si. waaw waaw tey moom noos rek. waaw lot of pour uh the people out there. Um, all I have to say to everybody is um, Happy New Year in advance. Let's stay strong and together as usual. Come to Gambians and see luñ ko xam ñoo nekk nekk benn liggéey benn nañ continuer ñu def loolu No, Iya buy ñëw nii moom ne ñëpp taxaw yu si jóg ne yëpp jóg ne Gambia dem rek waaw. yes yéen a ko dégg mu ne Gambia def Hilda uh, jërëjëf bàyyi ma bàyyi la rek nga dem enjoy yi um, uh, Wagan uh, Sona had the one Hilda. Uh, um, uh, one of the famous TikTokers, TikTokers in gis nañ ne like di leen jaajëfal ñu uh, one wane talents yu rëy Gambia and worldwide and everything But then na rek ma and Koreka, Fum rek uh, fu mu nekk nii afterwards dinañ try am someone from the management of Tamala ba ndoog waagaan Sona Hadi Jelen. yaa ko tere neex ah, waaw bu ko defee waagaan ñu nuy yaama caam noos yaama caam nee na ma ko koko sañse nga waaw waaw waaye sama caam me ñit sañse na <laughs> yaama caam nuyu nañ la caam ma nuy waale ci mama ndey kumba caam foofu ah, ca ne ma ne ziru di nuy abbas sama chéri séri fatmata ana kooku di madi madame bajinka ak madame bojang nuy naa leen nuy madame caam fatou kebe di nuy waa kër gi yëpp ñu toog di ñu seetaan jamono di nuy waa neema yëpp ñu ah, ngi seetaan ñu leen di nuyu loolu am na solo ñang baalo li amul fenn ndax a gis naa ne waajal nga ko mbaa xam nga lenn. waxal. at bi dafa jeex nit ñi ñu ci bari dañ xaw a mel ni ñu ñorati fi mu nekk nii dañoo sonn. <laughs> xaaral ma fàttali daf leen sonal. benn bés sama toog ak kanku <laughs> ma koy wan dara suma téléphone ma wan ko kooku rek mu ne ma kii dafa tooy <laughs> ma a ko yokkoon ko yow nit gën na laa tooy mu ne ma waaye ante ma léegi dama ñor te <laughs> sometime dama day tooy waaye sometime dama ne ñor waaye léegi dama ñor am na ñoo xam ne buñ daan dox da nga naa gis ñuy dox normal waaye fi mu nekk ni eh. watat seen tànka yi rek dañoo tayal fi mu ne dañoo sonn loolu dal na sax ñi nga xam ne ñoo toog di ñu seetaan fi mu nekk ni mm-hmm. eh, because dafa metti woon ñu jaar foo xam ne suñ ko expect ci àdduna ne dina mos a am mm-hmm. kon tey boo xoolee tamala nga xam ne am nañu lu ñu namoon ndax gala ba faa am tey ah, nit ñi dajee together waxtaan reetaan lekk naan loolu dafa bokk ci àdduna te gëj nañ koo am moo tax tey jii wax dëgg yàlla ñu génn jege askan wi dafay baax ngir mën a bégalante ak ñoom dalal seen xel mm-hmm. wan leen ne at mi incha allah mooy dàq at mu fi mos a jaar ndax ni mu staatee wane na ko soxna Kiné Gueye maa ngi lay nuyu di la ñaanal atum jàmm atum naataange waaye di la ñaanal sa njaboot barke muñ nga waaye gën a la muñ ndax dina baax ku mës muñ rek muñ yombul benn yoon ndax xam nga ne moo seen jamono ji góor ñaa ngi ànd ak seen i soxna lonkante dem di am diina mm. sa góor toog fii de jàkkaarloo jigéenam waaw ah ma nuyu waale ci mastawu tamit bu baax Mr Thiam su ma su ma reeni xool ah, moom it ndeysaan na bu ma sañoon wéttali ko waaye liggéey bi lépp moo ñu tënk waaye ñu ngi leen di jéggalu di leen baalu àq ah, ne xam ne rek liggéey bi moo ko laaj waaye bu du woon liggéey bi tey damay def ba mu baax ah, tabax ba mu kawee dëkk ci kaw la ci suuf dang dang ku ne yàcc ma tuuf la ko <laughs> waaw mu ngi noonu am na solo xam naa ne comme ni nga ko waxee rek Ousmane Niang sama rak mm-hmm. tamit mu ngi may seetaan ak soxnaam waa kër gi yëpp a ngi may seetaan. waaye la Ami Ñang ceeb tey. ah. laay lay dida amut fen li Ami Ñang ceeb tey. Hmm. nee na dox daje la tudd. <laughs> ñang baalo. ay ca mu ngi noonu kon yaakaar naa ni eh, noonu lay demee gis ngeen ko la nga xam ne moo xew Tamala. loolu moo xew Westfield mooy xew Banjul mhm. mooy xew fépp foo xamante ni rek nit ñaa ngi fay dajee di bégee Sénégambia moom toj na waaye bërëb bi dafa eh, sedd ni ko Balde waxee léegi xam nga nu may def ah dama naan xale yi toog. ah tàccu leen tëj tëj. ayca waaw. waaw tàccu leen na neex na diig na rombax na tol toli na war a tollu ko ànd ak sabar. ñii ñu <laughs> nelaw de. ñii ñu ngi nelaw de. yéen a nelaw de. ñii leen ma. Eh, dama ne tàccu leen na neex na diig na rombax na tol na war a gu ànd aki sabar ah. fii ba fajar kenn duñu tere ku ci tàccu sa loxo du miti ku ci sar xoole doo dee way kokkum ko rek ah. sagu na kooku doj bu nu xorom ah. doo sàlli doo seey doo dandatu yaay sama xarit waagaan yaay sama xarit ah loolu foor na tàccu leen Khady Niang Ballo bu baax tàccu leen ko waaw fii dafa xam nga dama leen laajoon sànq ne ana ñi bëgg jëkkër kenn faalewu ma foog naa ñi fi ñekk yëpp dañ am jëkkër borom ice cream bi de xam naa bëgg na jëkkër bëgg nga jëkkër ah <laughs> mooy bi jilo kan moo bëgg jëkkër borom ice cream bi ah moom nee na bëgg na jëkkër dina am atum 2021 bi waaw moom ku ma koy buuf sax bàyyi ma jox buuf kan buuf non buuf soxla soxlawul jabar léegi ndax xam naa ne buuf mi ñoo ko gisee attanagul kii baj nag baj baax na de non óolu ma baj ah. déedéet óolu ma baj ak kenn ci ala Demba Demba sécurité. Demba ma non Demba ma <laughs> óoluwuma ah waaw Demba daanaan la waay ah, jotagul Demba baax na seeni na des na tuuti waaw waaw. mu mel ni nag euh, dañuy delloo balde rek euh, fa nga xam ne moom fa la ne. am na beneen artiste bu egsi léegi di ndaanaan. nga xam ne Youssou Mbuub lañ koy wax muy Youssou Mbuub. génne album bu bees génne single bu bees ñu koy wax Tabaski mhm. single boo xam ne ba mu génnee ba léegi ñu ngi naan kii fan la nekoon ndax mooy Youssou Ndour wala du Youssou Ndour may leen kii mooy Youssou Ndouru Gambia ndax bu yuuxoo sa yaram dafay daw li muy def daf ko man ba pare teg ko ci temps ba noppi nag liggéey ko ba mu ñor mu génnee ko te nii ma ko gisee bu ko Gambia diyeel téyelee jàppale ko mun naa yóbbu musique bi fu nekk ci àdduna bi Youssou Mboup ma bàyyi la ak euh, ki nga xam ne mooy Balde ngeen def ba mu baax jërëjëf waagaan euh, jërë ngeen jëf waay kontaan Euh, ba léegi rek euh, comme nuñ leen ko waxee rek ñu ngi Senegambia live fan direct foo leen ñu mun a seetaan euh, si àddina bi rek ñu fàttali leen ne New Year's Eve la xam ngeen ne QTV suñ ñëwee rek mu nekk li nga xam ne big difference la moo nekk kon ñu ne la sëñ bi naka nga def. alhamdulilah maa ngi sant yàlla bu baax a baax a baax sëñ bi. tur bi baaxee ñu ko pour ñi nga xam ne ñu ngi seetaan. waaw man Youssoupha la Youssoupha Mbuub mooy suma tur. waaw fa tey nag euh, no fas yéene doxal sa New Year's Eve bi waaw xanaa kañ nekk ci seen gannaaw rek ñu defar ba mu baax comme ni ko waagaan waxee wax na lépp euh, wax ñu tuuti euh, yow noo dundee sa 2020 tar na am na ñi nga xam ne ñu ne 2020 neexu dara am na ñi nga xam ne nag ñu ne ah 2020 de neex na yow noo ko dundee waaw naka laa ko dundee mooy di ci sant yàlla rek xam ne Gambia mooy ndaali waaw ndax Gambie mooy ndaali te gan yi ñu ngey ñëw di root ci ndaali di yóbbu seen réew te ñun ñoo war a tànqa naan ci ndaali kon 2020 dañ cee sant yàlla ñu bàyyi xel rek xam ne ndaali Gambie moo ko moom. Ah, léegi yow sa 2021 ah, lan mooy sa New Year's resolution like yow lan nga fas yéene def ak ah, lan nga fas yéene jox Gambia ndaxte artiste bu mag nga si réew mi. waaw li ma fas yéene jox Gambia mooy tey. teylu liggéey li nga xamante ni moom lañ liggéeyoon démba ak tey nar ko wane ëllëg waaw comme musical yi Kiw siti Kaari Ngoon Mouhamed Dia musical yi Kiw TV Kaari Ngoon Mouhamed Dia musical yi Kiw radio Kaari Ngoon jaral na ma liggéey ba ngoon jëndee ko transistor. a <laughs> ah, waagaan kaari ngoon moom su ma ko déggee ay tapalapalay xaraat. waxoon naa la ko ay mbuuru kaari ngoon ak yooyu noonu. waaye nag <laughs> ah, ba léegi rek nañ wax tuuti. Ah, may ñu tuuti ndaxte waagaan mu ne soo yuuxoo rek ba eh, yaram day daw. waaw waaw ah. may ñu tuuti ci na la may tuuti may ñu tuuti rek mista Mbow. man yusumi fii laay tàmbalee Sénégal ak Gambia déglu leen Sénégal ak Gambia déglu leen ma. oh. oh leen ko. xom naa de. wagan boo ah? xomee ndox amu fi de. li for na de. <laughs> waaye nag <laughs> Balde. waaw. réew mi dañ ko mere de. dañ ko mere. dañ ko mere dafa dawoon. dafa dawoon. dafa dawoon de. non dawul ah. dawul jàmbaar dawul dafa uti doole. jàmbaar dawul dafa uti doole soxna si wax <laughs> waaye léegi duñ ko bàyyi mu dem ndax dañ ko soxla. léegi du demaat. ndax moo ñu mun a bégal. Ah, ba léegi rek waagaan. Eh, ñu jaajëfal mista Mboup ñu wone leen ñu yëgal leen ne dafa pafoom si kanam tuuti ah, jërëjëf ba léegi ñu eh, sant suñ eh, sponsor yi by Perfume di leen jaajëfal bu baax a baax ñu ngi foofu si Kairaba Avenue. Euh, ñu ngi euh, nekk euh, ñu ngi jàkkaarloo ak American Embassy bi ba léegi rek ñu fàttali ñooñu ñi nga xam ne ñoo tax bañ am spot bi tam pour ñu defee fii programme bi Coastal Elite Properties Real Estate ñu ngi leen a jaajëfal bu baax a baax Coastal Elite Properties Real Estate. Eh, ñu ngi am eh, eh, programme bu mag foofu si Abuko 18 ba 21st February 2021 foofu si Abuko batwaar bi te ñooñu ñi nga xam ne ñu ngi ñu ngi leen a ooyee Gamsip Breeders Association ñoom ñoo si dugal seen loxo kon ñu ne leen tey dafa toj waagaan. eh. cey waagaan. Balde Banna. tey fii mu toj de. Balde foo féetee. te maa ngi nii. ara ñu dem seeti Nicolas ñu ñëwaat léegi ma nga ca Tamala ayca waaw uh, waaw waagaan Sohna sona hari uh, tax na rek uh, right now ñu ngi ni fini Tamala gis ngeen proposed setup bi num fa demee fu nekk right now rek ma ngi ni tawa the CEO of Tamala like that's Mr. Malesala. Sala yes how are you? I'm fine thank you thank you very much happy to be here. Yeah, that's great. Like, uh, and it's a pleasure being here. But like, I just want to wish you um, a happy New Year in advance. And uh, at least we would really appreciate it if you could uh, tell us a little bit about the setup because we've seen that it's a wonderful setup right at Tamala, the buffet and everything. Thank you very, very much. Um, uh, welcome to Tamala um, Beach Resort. Um, it's a 100% Gambian-owned business. We are proud to be Gambians and we are proud to have so many Gambian people here. We are proud to have all these people here. We're very happy and we wish the whole country a very, very happy new year. 2020 was a tough year. 2021 will be the year that Gambia rebounds and we will rebound stronger than ever. Okay, we will bounce stronger and ever. All right, um, uh, like now, uh, I would uh, really want to know what are we expecting like in this 2021? Um, let's first start with what we're expecting in Tamala tonight. Okay. First, Madi, the Gambian superstar, just performed. He did wonders. The crowd enjoyed it. Chef, cooks, waiters, everyone Gambian, we did a wonderful dinner for our guests. Now coming on live would be Orchestra Baobab, you know, from Senegal. Everyone knows they are world-renowned um, orchestra that plays the best salsa and balach in the world. Yeah, I've, I've watched a little bit of the sound check in the afternoon today and I've seen what they were doing. And it's like I've also seen Nobles here. Absolutely. Actually, we even have the Vice Premier of Guinea-Bissau here. We're proud to have His Excellency here. We have quite a few dignitaries. We are getting a lot of support from Gambians. We are getting a lot of support from everyone in the Gambia. Today, we are really proud to be Gambians, and we can tell you one thing, the Gambia has a bright future and we are ready to play a leading part in making it happen, employing youths, growing our economy and making this country the number one country in the sub-region. Yeah, it's a great thing, sir, because I've seen it and I've heard more about it. And uh, more especially those are sitting on their corridors, the veranda, enjoying the performance and everything. All right, yeah, Mr. Salah, uh, I won't keep you long here because I'm sure like you're busy going up and down. You got a lot of things to do, but What's your last word tonight? My word is 2021, Gambia is growing up, Gambia is going to rebound, rebound, and Gambia is going to show the world what we can do. And we are going to play a leading part in it, employing youths and building our economy. This we promise all Gambians. Yes, um, uh, Yena Degalurek, uh, Momokowa, we are here to employ youth, give them uh, the chance, create a wide platform for them. Bondok Wagana uh, Sona Hari, by Madelo and Berek, Skoreferek, Nugena Aduga. Thanks so much, Mr. Sir. Thank you very much, QTV. Thank you very much, Mohamed Yeah, Thank you. Okay, Sona Hari Wagan, uh, Yena Degalurek, Bondok Ninko Jelat. Okay. kon dañu dem respecté Lady Lova. waaw waaye balaa Wow. dafa mel ni ñi dañuy nelaw. dama bëgg. su fekke yéen ngi bëgg and ak ñun ci guddigi mu neex lool ki di waja ñew ñëw yéen mom a moom soo bi tax ñu ñew fi pour bëggal leen tàccu rek wala du ngeen bëggal ñu ñun tamit dama bëgg ngeen taccu leen di lofa bu baaxa baax su ngeen bëgge mu dugg fek taccu wu leen du dugg deguma dara deguma dara ba legi wa bor bi ma ngi leen di deg tuuti rek wa bor bi deguma leen ah wa yéen ma ngi leen di deg tuuti rek yéen ñi ci ginaaw deguma leen de waaw kay mu ngi nonu kon nak ñu daal duggal Lady Lova mu bégal leen from bisaw ah waaw kay noonu baax waaw ay ci mu ngi nonu taccu leen ko bu baaxa baax yokkat leen wat leen na gëna for na jëm kaw ay ci mu ngi noonu Lady Lova dafa lula neex maa ko wax it's a Congo Bongo production Lady Lover, preto esperto. se assim, o baby, lipping it. Misty volta pra bobam por uma sonha amor. Baby, fica comigo, possível como a misty. No amor, que lá e bender na vida. Baby, volta pra mim sim, falsidade. Não uma ideia pra poder mostrar verdade. Baby, baby, me siga a Pra me sim, minha vida dolil dolil su fekke neexna tàccu len mu dolli benen bu fekke neexul mu wàcc neexna da ngeen bëgg mu dolli beneen da ngeen bëgg mu gëna saf ha yéen ñi côté bi rek ko wax fi wax aguñ da ngeen bëgg mu dolli mu dolli benen ay ca dolil benen you eh, so much. Kaay kaay <laughs> eh, <laughs> ok uh, thank you. My name is Lady Lover Queen. Uh, happy New Year from, everybody. Like, wahal Kiriol. Kiriol from when? <laughs> Uh, ah, está contente que bole tudo, na espera que uma boa tenência, uma boa filhos, soma aqui outros que botou e baialina canta, na espera também ser igual, soma eles. Estou muito contente com vós e muito obrigada para vós tudo, maneira que vou ser tá bem, vou bem filmar para vir assim, né, gente? Uai, tá de largo, <laughs> uai! Thank you! Thank you! Thank you! Tá de largo, barra, barra, barra, barra, barra. Bigi jogue para Bissau. Não, agora. ah déggoon naa benn jamono da doon làkk créole. waaye taay boobu dama déggoon créole di. si ñëw rek sa créole yi dem ba créole yëpp dem. <laughs> xam xale bi moom wax dëgg yàlla ku jàkkaarloo say créole mën naa dem. non yow baj baj ah? moo la jat jat moo ndaw si si yóbbu la. ah bajama catu. waaw moo tax yi dem. moo. di leen wax ne nag emuñu fii de. Ah. am na ay artistes ay ndaanaan yu nekk ci ginnaaw. Misma dina fi jaar. Misma Yusufa mi fi taxawoon léegi dina fi jaar. Yusufa ak yeneen i yeneen i maa la ko wax na xam ne dinañ taxaw tey bégal leen. waaw waaye yaa ma ci am nee na. Fatou euh, Sakho Diadama. Mhm. jamono jii mu ngi bàyyi xel. xam nga nit nag amul dara lu dul ku ko defal teraanga. saa yu ma ne tëli ca lopitaan ba kaani Kanifing ñoom ñëpp dañuy bàyyi seen i soxla. waa Kanifing kenn du ma Monsieur Fall. maa ngi lay wish uh, happy new year di la ñaanal jàmm ak salaam di leen ñaanal seen liggéey bi barke kontaan naa seen lu bare bari ci taxaw bi caring bi everything. dëgg love you. kenn du mom ndax xam ngeen ne wax deug yalla ku dem kanifin xam ne ñom dañ am taxaway ci askan bi waaw te lool nak yaakar na ñepp xamé nañ leen. kon yama cham ñu koy nuyu bu baax. Mhm. diko ziaré diko bëggé mam bëggee ji bi. ma nuyu docteur shamira docteur shamira waaw borom euh, Cherab. waaw jabar Mister jabar eh, waaw. shamira mom yalla na fi yàgg. jam yi corona. waaw kum ne hello I am Mister Shamira. <laughs> sa fi bi dem. bam ne ma I am Mister Shamira, mu ne ko wa. <laughs> Mr Kool. waaw waaw. Eh, Mr Mr wax sax. Mr Ka waaw Mr Ka. Mr Ka sax bu ñëwee waagaan. exil <laughs> ba mu ne ma eh, taxawal rek. gars yi waxaguñ dara de. Eh. waaw waaw. Ah, waagaan fi mu moom li may fàtte sax moo bari. su ma xel bee dem ma ko sa xel bi fu jëm. ma ko Bakary. mu ne ma naa ma ko liyaay du baax. <laughs> mu ne ma lan la. ko ñoo toog léegi. <laughs> <laughs> rek mu toj. Euh, ñu nuyu ko bu baax maam ji bi sama xarit mu ñuy seetaan Modou Ndiaye ñu ngi ñuy béggee bu baax Modou Ndiaye suñu xarit suñu xarit ah mm-hmm. di ko béggee bu baax a baax xarit démb waaw mu ngo taa yu ñu daan dem programme Ndiaye jël otom def ci essence wallaay yóbbu ñu ñu ba pare mu delloo ñu talaaj ñu dërëm yàgg na ko am na jamono ñu Ndiaye yóbbu woon nag ci programme yi Fatou Yale mm. ñuy ñibbi dem ba ci yooni ko sorol ba rek para yi génn ma ko fii la ñu yàlla doon xaaree <laughs> waali ba jot njaay dugg ci biir ana waagaan mu ne ma ñëwul xaar ma dem seeti ko njaay dem lu yàgg waagaan ñëw mu ne ko xay njaay yow la seeti li mu ne ma xaar ma dem seeti ko ba waali jeex xadi ñang duggut feccut bégut kenn mës ta gis waaw lii da lañ ma def ñaar ñi ay ëppalicaacoo yu mag geen doy na waar eh, mu ngi noonu comme programme bi ni muy demee rek yaakaar naa tey li xew tamala gis ngeen ko mhm. eh, li xew Westfield yéen a ngi koy dégg waaye tamit li nga xam ne moo nar a xew fële ca koko eh, Oson ki nga xam ne moom moo ñu fa nekkal tey muy Kankou madame Diagne euh, gis ngeen li nga xam ne noonu la demee tey tamit fii ci euh, Sénégambia yaakaar naa ni dina am solo bu baax a baax a baax ñu kontaan ci moom bu baax moom mi nga xam ne Balde pël bu rafet ñu ngi lay kontaanee bu baax a baax ah di la ñaanal ja waaw nappal de bala Moussa nappal Mr Gold de nappal baax na nappal de jërëjëf waagaan mhm. euh, ak Hadi Niang ba léegi rek Eh, ñu ngeen nuyu képp ku nga xam ne yaa ngi seetaan rek foo ñu mun a seetaanee yaa ko xam eh, ñu ngeen nuyu suñ sponsor yi Qcell suñu bos. Mm-hmm. ñoo xaali yoon bi. ñeneen toppa ah, mene ngudditi laawongol mm-hmm. si woɓɓe jokki dollega silo wala dole molnoma wi innovéroras folo eh, suñ sponsor lañ ñu ngi leen a nuyu bu baax a baax Qcell number 3 bi ak number 5 bi moo gën Euh, utal line boobu nga jëfandikoo internet bu gaaw euh, bokk nañ si ñu jàpp euh, event bi tey di nuyu ñoo ñi nga xam ne tam ñoo nekk suñ main sponsor yi by perfume maanaam ñoom am nañ perfume ba bépp xeeti spray soo ko buggee rek soo fa demee by perfume di nga ko am te it bu ànd ak classique la ñoo wax ñu jaajëfal ñu ñu di Coastal Elite Properties Real Estate ñoom ñoo ñu jox place bi Euh, te it euh, ñu ngi leen a euh, ne gars yi dañoo am event bu mag on the 18 ba 21st February 2021 foofu si Abuko te ñu bokk si li waa Gamsip Breeders Association di leen jaajëfal di leen fa waagaan. waaw man nag guddi bi déggeeruma si bu baax comme guddi. lu tax balaa 12 rek fekk neloo na waaye tey 12 bi. damaa dangal xanaa danga de lekk ganaar guddi. 12 bi dama dangal. danga de lekk ganaar guddi. damaa waaw damaa lekk ganaar. looloo tax ganaar bu tibis jotee rek nelaw bi. waaw man déggeeruma si balaa 12 dama dee nelaw waaye 12 bi dama xaar New Year's ma kick 2020 fële ma dugal 2021. <laughs> waaw waaw. léegi kanku muy on stand by euh, dañoo dem rek ànd ak madame Diagne Seri Mamadi ñu seetaan ko te desiwaat. maa la ko wax ñu dem te ñëw. jarbaat lool laal tey jarbaat waaw ba léegi amaguñ sa aw ni kanku li ñuy def rek mooy waagaan waaw ah, damay ah, wish happy new year kooku di Mr Lamine Manga Seri Aminata Jawara ah boo koy bàyyi Bachir ah, ndax nag dafa play a lot ñun mhm. taxawuñu jàppale ñu mhm. booba zéro sëñ ba léegi kon Lamine Manga waaw bu ñu jógee ci mom rek dañu dem and ak commercial break delu ci waaye Lamine ñu ngi lay ñaanal nak nga nga am at mu neex neex 2021 ñu dem and ak shot commercial break delu ci waat Parfum the first parfum bar in Gambia Bay Parfum moo indil Benin façon ou parfum Ce boutique bu rafet bu yànj bu mucc ayib ca By Parfum Dinga nga fa ay yu amul fente naturel cëm ak seddaay bii boole si nag air freshener yu doy waar mel ni Vénus Flora Fresh 24 ay wuñu parfum bu classique waaye it bàyyi wuñu yi nga xam ne ñoo gën a famous si àdduna bi oud private collection ak yeneen yu am solo for de first time ñëw leen ngeen découvrir parfum bar mbir mu bees si àdduna bi tànnal sa flavor bu la neex bay parfum ñu ngi nekk 54 Kayraba avenue opposite American Embassy mën ngeen ñëw woo ci 77 000 529 1888. Buy Parfum, the first perfume bar in Gambia. Buy Parfum, it's another way to perfume yourself in a luxurious and attractive shop called Buy Parfum. Come and find rare and natural churai flowers and also the fragrances of the biggest popular brands Oud Private Collection, Air Freshener, Flora, Venus, Fresh 24, and many other products. With Buy Parfum, discover the Parfum Bar, a new concept in the world. Personalize your scents with the Parfum Bar. With the Parfum Bar, choose the perfume that looks like you. Buy Parfum 54, Kayoraba Avenue, opposite to American Embassy. You can join us on 7700002 or 529-1888. Buy Parfum Gambia. You will really love it. nga bàyyi parfum jamono ji moom ah, parfum yu neex la am. non ñoo euh, kay. waaw boo bëggee parfum bu neex boo xam ne da koy laal one week. am nañ one million am nañ two million parfum bu tudd one million mosu koo gis. mosuma koo gis falaam te nag ñoom seen parfum yi yëpp li ma leen ci xamal mooy machine la. Mhm. machine mooy dugal mooy génne machine ay génne lépp. waaw ah, waaw non bàyyi parfum toj nañ fi. waaw waaw. tabaat ñu nuyu ko khatim sunu xarit boobu Kaatim Cuuraay mako tuddé khatim Kaatim Cuuraay. VIP yëpp borom bax la. Mhm. wess wagan waagaan ah, few minutes rek ñu dugg ci 2021. Ah. ah waaw right now ñu ngi am 11:33. Ah. li dess bareetul. ñu dugg ci 2021. Yeah, yeah. yow jogal <laughs> dama bëgg nga jog taxaw. ah kay dafa neex. waaw waaw. jogal taxaw. ñang balo ngani malan dama bëgg nga jàkkaarloog askan wi. nga ni. jigéen ñi nee nañ. Hmm. yaa leen fi teewal. waaw waaye man maa fi teewal góor ñi. ah jigéen ñi duñ ma seetaan de. ah waaye may góor ñi duñ ma seetaan de. ah baax na. góor ñi duñ ma seetaan atum ren. 2020 bii li góor ñi daj. jigéen ñi dajuñ genn wàll gi sax. Ah, lu ji leer laa la lu góor ñi daj. li góor ñi daj atum ren. atum ren. lu jigéen ñi daj góor ñi dajul genn wàll bi. yow kan mooy xëy di wuti dépasse. yow ban jigéen mooy xëy tëdd këram. koo gis mu ngi ci mbedd mi di dox. di uti lu mu indil njabootam. yéen coow li mën naa bari lool waaye dépasse doo leen ko baale. ah waaw waaw coow li nag mën naa bari lool waaye bu njëkkoon ba da ngeen jàpp woon mbedd mi di dox di dem kuróon a teg leen ci kër gi du ñu bëgg. waaye tàccu leen lii waay. yéen bi ñu kuróon tegee ci kër gi teewul bu ngeen xëyee tàllal ñu loxo. ah waa gis ngeen tàllal loxo nag ni mu meexee noonu la méttee. yow man soo xëyee gis ma ma toog guddi maag yoway toog fajar maag yoway toog te boo xëyee ne ma nijaay <laughs> bu ma xëyee ne la nijaay nga ne ma am génn na waat am keneen ci bébi jamono bi may toog ci néeg bi nga may wax bébi yaa ngi teg si keneen naan ko bébi man mii maa wax lii <laughs> lu tax nga def sa téléphone bi code bañ ma xam ko. ah sama téléphone musuma ko def code nëbbu la ko nag saa yu ma ko defee code da nga koy xam heure bu la neex ubbi waaye yow sa téléphone du ma a xam code bi. 24 hours bu ne nga ceeñ ko. 24 hours musuma koo ceeñ ba mu doonoon la doon ba tey moom lay doon it. yéen jigéen ñi bu leen ñu rey. yéen góor ñi bu leen ñu rey. naqar bu ñu toog bu ñu am rek yéen a ñu ko teg. yéen góor ñi. ak i ay góoram. naqar bu ñu am yéen a ñu ko teg. ak i ay jigéenam. day lu leer lay wax yow daal lu leer yaa ngi bëgg daw jiifoo la àndal ah, moom tamit keneen la ana jiifoo ana jiifoo a ah, tàccu leen jiifoo bu baax a baax waaye waaw waaye si Banjul la dee xam ngeen jiifoo xam ngeen jiifoo ah dafa mel ni ñi jiifoo dina leen ay ca len ji jifoo bu baakha baakha baax mu dugg si. lolou forna naa. len ko waaye jifoo ngi daan. yow yow kenn du yow. yaangi ngi way mang ci ngi si sanse ah xadi soxna hadi ha ah. yow suma jabar lañ la ha ma sha allah sanse bi rafet na mané naka ngeen def. ana ñu bëgg féké 2021 bi si loxo sa kaw. ana ñu bëgg sen yaay sen la sa kaw. ana ñu bëgg QTV seen loxo ca kaw. ayo boy sóora ji borom daara ji deg deg dara do yomat selecta nañ dem at bu bees bu ñuy duga ni mic check selector ay kamu kau. gaaw samay yaramam dafa yeah mic check testing selector let's go mayal Mane, hey, ey eh, sóora yaa ah sóora yaa ngi ñuy gaañ ak combine Japarek rek bañ li ngay def one in a kind ma ne bu pënd bi wëree ba ma dikka di ngeen dégg and all haters yi ñu ine lu bon yëpp nañu seen di sëgg ay QTV Gambia's finest leen ko bu baakha baakha baakha baakha baax nice performance na gëna for yaangi cool ah kuulee rek maa ngi cool waaw lay wax ci New Year bi New Year bi xanaa kañ di leen massaw ci at buñ joggé metti won na torop di ati corona di leen ñaanal heewal si at buy ñew at bu melni at bobu yalla bu mu fi dellu si waaw TV ñu ngi def lu nice ñu ngi support Gambian music ñu ngi def lu rafet a rafet rafet ñu melni ñom nak amuñ QTV one in a kind di leen wax ne tamit right about now big thing is going down at Zion Yo, Jollof Arts ñu ngi fa def lu garaaw a garaaw a fi juge rek fa laay dem Wa dem def fa live band performance du yomba invite nañ leen yéen ñëpp ñëw leen ñu Zion jërëjëf jërëjëf léegi nag waagaan kii may bëgg a éegal fii bu ko ah. tàccu du yéeg dëgg la tàccu leen ko bu baax bu baax a baax a ah. waaye kii waaj a ñëw. damay ñëw nag dugal ñañco. <laughs> ñañco. kii waaj a ñëw. wala du egg. faw ngeen tàccu. faw ngeen tàccu. kii waaj a ñëw foog ngeen tàccu ko ñañco. bu gaa yi bul ñëw de man maa ko ñaan rek. ana ñi bëgg ñañco. ana ñi bëgg ñancoo def leen seen loxo nii ma koy seen. waaw waaw ñu ne Modou Moussa Cissé. ah. ay ca ñancoo. borom Amérique. borom Apachaki. borom baax baax. Modou Moussa Cissé. borom gën gën. borom Amérique. Séeri Sali. ndaanaan bu mag bi. kenn du ngi noonu di ñëw. ñancoo ngi nii di ñëw. tàccu leen ñancoo. tàccu leen ko. ñancoo yomb. tàccu leen ko bu baax a baax a baax a baax a pacak naamu hee paretara ka buri ko ni wonde sacco manni ka cosano bakaw sojari kambano nari leksolu ɓe kandirin nden kam fa so fa ka lowa dole ñinin e ka ñanco mina ka wasari wasari biringa nenen ndi fa ka foñe ko sabari sabari picasso nga walata nan ka cukuti cukuti felen nata maliɓano lukuɗuɓa ɗolla docteur o ka wasar docteur o nata docteur o nata docteur wasar docteur o nata docteur o nata docteur make ke so du ai dai ni ka no yuru yuru ni pomba ro ka wasar ka wasar ka wasar ka ka wasar yang ka wasar yang ka wasar yang ka wasar ka wasar ka wasar ka wasar ka wasar yang ka wasar yang ka wasar yang ka wasar wasar mina munyinti tulolo kuma ke solla dula teja maiko stage ole ka karakati ati soli konti face to face ge karole karakati suago nimoro on va solle ke diol far far jomol tamma banjinoje ɗigo ka batuloɓum fakaya ñinduga ka faya ko dukade tasi sai wo fanso tole mum doli kaye ko démocratie banko koɗo miyawa ñimi jan se ji kosaji nimmiɗin tafal tafal to ñasi laɓan bali tafali tafali puccuru patari tulibu neka ka laɓan wayi dokuta wasari nata weli komo to nyu filebu kani pacalli mon ko weli bobu hale ɓu rewla boɓaru mum ko fifiti killo ɓoɓu ehen pewla cafaru to amuna garapu ɗofɓe rewte mum noñu fajla docteur ñawna docteur mo amudu pikiri nani balwe kandi 90 degrees doctoro Ronata, doctoro Ronata, docta wasar doctoro Ronata, doctoro Ronata, dokuta wasar muna mfele nata listindu kuma kesodu ay teyni kano yuru yuru ni ka wasar kawasar, kawasar, kawasar, kawasar, kawasar, yang kawasar, wasar kawasar, ka wasar kawasar, kawasar, wasar kawasar, yang wasar ka wasar ka kawasar, ka wasar wasar wasar janna ka wasar wasar wasar fafalo doli kankude bari be sifa yantu janjin kewudel dol man follow kude bari be sifa yantu jandi kewudel sadio ka yokati, yokoti nyanto ka wasari wasari ngoy ka yokati yokati, e mure ka wasari wasari Yokati yokati yokati yokati yokati yokati yokati yokati yokoti ngoy yokoti mansom ngabule da ko poto ko wasar wente babi dete. wente babi dete. wente babi dete. manta de de wente babi dete. man songa bule da bo ko tako wasar sama loko te ko tulu sama dahar la ko nyugo ci sukul doktoro nata doktoro nata dokta wasar doktoro nata doktoro nata dokta wasar munam felen nata listin duguma ke sodu ay tey ni kano yuru yuru ni pomba ro fire king kong darling darling darling demanding dinni wo yende ngatulo tay darling konkoros teri won teri e teri kende ba e tero min dabu kamara o kurumba darling darling darling demanding dinni wo yende ngatulo tay darling konkoros teri won teri cherry, teri kende ba e tero la si kolo kolo sinti taula mbefe kanolela nambendu mbefe dalolela nambendu nananjani mbisala wile kanofangole luntananyi yengisotumbu nambendu mbefe kanolela nambendu mbefe dalolela nambendu nananjani mbisala wile kanofangole luntananyi yengisotumbu lebiti miri mpojipoji isofiletaale munadiya tamporoji nafikolungania tolla molude korosi kunan kamɓe tole munnatomu sunno ngasar doli londi ko be nyemu na kuru folo moto ke meni sefe de talemu na gatale mamu nyano bila talen dumbu akilim fula saban ju so sulo tele wo kuntu apodin podin sinjan dan ko jam faju lo kuntu tabuna ko raba do se uru ba la ti fayta kan kuramba tura sama ben balolu jonkita se uru don na koto to kutil sambu jamma do man do fala wo Magane. Niacho. thank you very much. kontaan nañ. ñoo gën a kontaan. yow mat ah, jërëjëf. tàccu leen Niacho a baax leen ko. loolu am na solo waagaan. ndaanaan bu mag a ngi nii. ah dafa mel ni nag Miss Ma dugg si na. waaw Miss Ma te jamono ji mi ngi taxaw ak DJ Balde. ah kay dañ koy bàyyi ndeysaan mu waxtaan ak eh, Miss Ma suñu jigéen suñu xarit. nga xam ni moom yaakaar naa ne ku ne aar ci réew mi di nga ko tudd. ndax lim fi jot a liggéey lépp ñëpp teg nañ ci seen boot macha allah rek lañ koy wax ak law la cet am na solo waaye ñancoo kenn du moom yëgal na fi toj na fi ayca ñu bàyyi balde banna ak ñancoo anaka ah, euh, ak misma ñu waxtaan tuuti waaw waagaan balde banna ñancoo toj na fi non kenn du ñancoo waaye nag comme nu ma leen ko waxee rek euh, maanaam si red carpet bi euh, maa ngi fi dañoo def ay interview yu am solo ñoo waxtaan ak euh, artistes yi ak ñi nga xam ne ñoo ñëw pour fekkee bés bi xam naa ne in few minutes time dañoo ne welcome 2021 bul ñu catu eh, eh Balde bu ñu catu very soon bul ñu catu bàyyil noonu rek bu ñu catu xam nga last year QCD mm-hmm. welcome 20. Mm -hmm. Wiley Gidamane, welcome 2021. Yeah. Um, how are you doing? You okay? I'm fine, thank you. Please, tell us your name. I am Miss Ma. Miss Ma. The Afro-Manding Diva. Yow. The, the Afro-Manding Diva. Gis nga num ko waxe sa dafa ne. Yow yow <laughs> tay ko defati. Miss Ma rek ngay lak English. Duma ko defati de. Doto ko defati. Please, let's talk about this day today. I mean, it's New Year's Eve and in few minutes we'll be saying 2021. And uh, how do you intend to uh, celebrate this day today? Actually, we're saying thanks to God and uh, for witnessing another year. Um, we, we, we, we really prepare to, um, to celebrate this day together with QTV and uh, with fans. And uh, we're praying for everybody uh, a happy new year in advance um, with lots of um, success um, let 2020 not be repeated again. <laughs> I'm praying, <laughs> I'm praying for the whole Gambia, the whole world, and uh, 2021 let it be the best, best year ever. Okay, in your music career, um, what are some of the plans that you have for 2021? Actually, I have a new album called the Sutura album. Uh, which we are planning to do the launching on the 31st of uh, 30th of January. 2021. And from there, we have Misma and the Joker. Records have so many things on the pipeline, like national tours, international videos, and there's so many things actually. But at this moment, this is the pro project we have for now, the Sutura album, about to be launched on the 38th of January 2021. Where are you launching this? This is going to be at the MDI Road Hotel School Garden. Okay. Uh, what do you have for your fans out there, those that are watching you right now? Actually, let them wait for Miss Ma. In all ways, like you all know, we walk in to satisfy the fans everywhere, the entire world. And uh, as I said, get ready for the sutra album launching, and a uh, lot of things are coming from Misma and the Joker Records record to the fans. Misma, I love your outfit. From top to bottom. Wagan! waa Balde. Miss ma toj na fii de. laaj ma laajal ma ko lim sol lan la. xale bi mu ngi melax melax. xale bi duñu fontoo. xale bi ah Miss ma lii lan la. xale baa ngi melax. lan la sol nii. xale baa ngi taaka. fay ok eh, waagaan mu ne nga wax ñu loo sol ni lii mooy lombal suwaat. Eh, ñoom xam nañ ko. <laughs> oh Miss ma eh, after Miss ma dafa perform. si kaw fii jërëjëf kontaan nañ. Uh, ñu ngi wi success si sa music career jërëjëf. thank you very much maa ngi gërëm ñëpp di leen sant uh, di leen di wax suma fans yëpp na ñëpp on the 30th of January 2021 the album launching of the Sutura and uh, Mbafala suma laakut soose gars uh, ah, mbafala mobe nafan sol mbal tentula mbal jayila alla afromandin diva uh, ah, albe pare on the 30th of january the sutura album launching misma and the jokado record and big up to the entire jokado team thank you Uh, thank you very much Barka bele léegi rek ñu fàttali suñ sponsor yi ñooñu di QCell suñu boss di Gambia's Quality Network we innovate others follow saa su ne QCell moo nekk network bu gën si réew mi wàllum internet wàllum call Euh, ñu fàttali tam ñi nga xam ne ñu ngi leen a ooye Coastal Elite Properties Real Estate euh, ñu abal space bi kontaan nañ ci gaay euh, Coastal Elite Properties Real Estate ñu yëgal leen ne dinañ am programme bu mag foofu si Abuko 18 ak 21 février 2021 ñu ne lii waa Gamsip Breeders Association Euh, bokk nañ si euh, ba pare ñu fàttali ñooñu tam ñi nga xam ne ñoo nekk Buy Perfume Gambia euh, ñu ngi leen a fàttali bépp xeeti spray boo leen soxla rek mun ngeen a dem si Buy Perfume di ngeen ko fa am lii neex na ba noppi Buy Perfume Gambia ñu ngi fi opposite American Embassy foofu soo leen demee rek ngeen am ko ci comme nuñ leen ko waxee rek very soon will be saying happy new year in few minutes time we'll be going live and direct the countdown starts uh, very soon and of course we are wishing each and every person a happy new year in advance uh, may it be a year of success year of peace uh, stability prosperity and of course a lot of money <laughs> a lot of money Wow, wow. yeah a lot of money uh-huh. Euh, state nee na mu ngi fa nekk ak kooku di Solo Kanté ak ma ma Nuha Jammeh ak kooku di Juma Kamara Poma ak kooku di Mam Fatou Kora euh, Seri boo Bojang ñoo nga foofu dañuy seetaan jamono ji ba xam nga ni euh, wax nga ko ni ñu dugg ci 2021 Modou Moussa ñu ngi lay wis a happy new year yow fi ñu génn te yaa ñu fa génne yaa ñu solal si sa ngaari maa damel yal na sa jàmm yàgg yaa tax ñu rafet ba mën a jàkkaarloog askan wi ah, waaye ah nena naa la ñang baalo li si des tul di ay minute ci des dañ koy count ñi taxaw ndax xam nga ni legui tay gan gi yexi waaw waaw ta buy exé dafa am nuñ ko wara téro te ñi taxaw fi yëpp gan gi lañuy xaar waaw waaw niñ koy téro nak warul yomb mhm. bu démé ba des ay minute fi dina yëngu ku togon di nga jog ku taxawon di nga tok ku tëddoon di nga tëdd di nga jog ku don nelaw di nga yew ndax gan gee ni mel gan ge tollu nonu yakarna ni tay fi ci senegambia metti na ndax liko def moy moy place bi nga xamni say buñ ne at bu bes mm-hmm. ak waja taxaw ñepp fi lañu dajje ngir i joy sen bop lolu motax tax QTV tay ñew wetali len ci guddigi and ak yeen ci bis bi ngir ñu teru gan gi nga xamni moñu fi taxawal taxatew te ñun ñepp tay waaw Momar Diallo mu ñuy seetaan ca UK ca UK laa nuyu ah, suñu mama mama roxi bi mu ngi seetaan foofu ci USA waaw ah, Fatoumata Jammeh mu ngi seetaan day Assa Ndiaye Hadi Mané eh. ma bàyyi bi tey waaw waaw ñëpp a ngi di seetaan jamono ji waaye maa ngi wis nag very high special uh, new year suma husband mm. my sweetheart ndax jamono ji li des bareetul ñu dugg ci 20 20 ok waagaan waagaan waaw eh, gaa ñu ne dañ bugga képp ku nga xam ne yaa fii rek ñu ngi desee few minutes pour 2021 eh, duga eh, dañoo def countdown ah. waaw ñun yëpp ay count waaw buñ desee few seconds to go ah. ñun yëpp ay defandoor benn countdown bu mag ah, ñu konte ñu compter bañ dugg si biir 2021. yee noonu lañ ko bugg a doxalee fii tey si Sénégambia. Ah, ñu won leen ne nekkut affaire bu ndaw. déedéet waaw QTV jaxasoo gaay <laughs> <laughs> léegi nag. nuyu ma Babou Thiam UK. waaw Babou Thiam UK ñu ngi koy nuyu xarit la Mamar Thiam Mamar Diallo ñoom ñëpp ñu ngi leen di nuyu. waaw di nuyu. di nuyu képp koo xam ne yaa ngi ñuy seetaan ak foo mën a ne. Mm-hmm. Modou Moussa bég nañ lool di nuyu fépp foo xamante rek nit a nga fa rawatina waa Sénégal. jamono ji ñu ngi ñuy bàyyi xel. waa maam faatu Kora. Ah, koy toj Sénégal bi li koy toj nag réew mi yëpp fi ndaje tey ngir xaar ngi ci biir egsi na fi mu nekk nii ñëpp alhamdulilah ndax ak ni na nekk atum naataange atum yokkute atum xéewal di wax ni QTV programme ay programme yoo xam ne bëgg na ci ànd ak yéen ci 2021 bi ngeen bég ñu ni tamit ñu bég lépp lu leen di bégal QTV dina ci ànd ak yéen ci 2021 bi ci programme yu bees yoo xam ne ñu ngi koy waaj a indi ngir yéen yi nga xam ne yéenay seetaan QTV dëkk ci réew mi bitim réew di kontaan ci bi ah ñang baalo réew mi yëngu na lo xam ci gan gi. ah gan gi agsi na. gan gi rey na. xoolal ah, waaw gan gi ñëw na. ngelaw li teeru nañ ko. ngelaw li ah, kontaan nañ. ngelaw li ah, ngelaw gi yegsi na. yegsi na ci yow. yegsi na non wéccug wéccug sax am na. ko yow no nga ko. no noyyi ko. ma ne ah. corona dem na. corona dem na. tukki na. corona dem na. corona dem na. corona dem na. na dem na dem na dem na dem na dem na dem na ah ya karena corona dem Li lii dara fay ko ñang baalo ñu wis rek happy new year Alhaji Mohamed Dia. waaw waaw lii lépp moom la. jox ko madame Dia. jàppuloo yal na sa jàmm yàgg. nee lay doon ba mu doole. madame Dia. waaw yal na seen bari na doole. waaye kenn du tim bi nekk ci suñu ginnaaw wallaay la ñu ngi liggéey lu rafet. tey bu ngeen gisee àdduna yëpp jàkkaarloog ñun du ñu seetaan am satisfaction ñu nekk ci ginnaaw la. waaw waaw kenn mënu leen a fay. ak caméraman yi nga xam ne ñoo ànd ak ñun ci liggéey bi. looloo tax daal. si Badji sama doom maa la ko wax. Seri Waaga nuyu naa la. waa si yes eh, Sira moom Sira moom Moustapha Kinte 2021 bi laa koy yeew. Mr Cole maa la ko wax. du ma fàtte Francis. bala Moussa Kulbali. waaw waaye tàccu leen lii waay jëlal ma lii jaajëfal jëlal ma affaire si nice na nice na fu mu nekk nii pétard yaa toj pétard yaa naaw pétard yaa naaw jëlal ma lii fii si Sénégambia maa la ko wax waaw waaw ànda see QTV mu nekk affaire bu garaaw euh, mu nekk euh, lu rafet Balde waaw xanaa xamoo ne am na ñoo xam ne mm. tey duñ ñëw Sénégambia lu dul rek waaw ñu ñëw xool ni ñuy taale pétard yi. waaw. moo tax ñun ñu ñëw fii jëlal leen ko. waaw ku ci munta ñëw ñu wan la ko sa kër. nga toog sa néeg. ñu wan la ko. jàkkaarloog sa tele bi. foo mun di si àddina bi. ñu jox la pétard yi. ñu jox la pétard yi <laughs> taalal la ko. <laughs> kenn du tuuti waagaan yaay bandi. <laughs> waaw. fooy dem fooy dem. ba kaw Balde. bul bul dem saret yi bàyyi ko. Balde. baal saret yi. damay dem de. déedéet. waa Hadiña. bum dem bum dem. dem xam nga dëkk ñoom Aliou Diallo dafa am ay saret. waaw ak ay ganaar waaw. am na ay gis naa fa ay bakku bakku. <laughs> Balde. waaw. Basse laa jëm. bul dem. bul dem. boobu ñuy xàcceeloo. déedéet déedéet déedéet waagaan. Balde. bul jël bi bàyyi ko ah. jël de. waykat. déedéet ah. déedéet moom moom baatam bi dafa nii. waaw Balde. waaw mën naa dem dëkki bala Moussa de. déedéet déedéet bu fa dem. Ah. non fa dem suma famille mu ngi fa. <laughs> soo fa demee suma famille mu ngi fa. <laughs> loolu am na solo. kontaan nañ kontaan nañ trop. 2021 ah. ñëw na yal na nekk at euh, yu atum yokkute. Euh, fan bu gudda wér gu yaram. ba pare ñun yëpp suñ liggéey bi. ñu am si jëm kanam. ba pare yàlla may ñu wér-wér le com pol bi laaka na olof. wér wér le waaw <laughs> moom olof bi moom nu la neex nga koy waaw waaw waagaan ah mayel ma Modou Moussa hi hey Chilam <laughs> Modou Moussa Modou Moussa ñu ngi lay béggee dëgg dëgg manqué nga ñu di la ñaanal at mu neex mm-hmm. foofu ca Amérique yokku ba yëg ko jàpp nga ci combat bi sengaari ñu ngi koy jaajëfal maam Fatou madame Bojang aha moo génn ci dress bi waaye Modou Moussa fay moo fay de for na de ah, yaa jàpp ci lii waaw waaw muy lu rafet lii ma sañse tey borom laatir kunda sama rakk ju baax ji Kéba Fall Modou Moussa nag moo fa jaar daal di koy def ba mu baax allah ñang baalo waaw ma nuyu yaamu naw Ndiaye waagaan ak ma Balde borom ah, Manning Café ñooñu tamit xaalis bu bari lañ ma yónnee ne ma waacal maa la ko wax kenn du borom Amérique salaam nag mais dañ koy bàyyi xam nga moom dafa bokk ci ñun am nañ daanaan dama bëgg salaam ñu interview ko Ya. bu fa jógee mu ñëw bégal askan wi. bul ma dëtal balaa ñuy jàll ci leneen. bul ma cangal bul ma dëtal direct rek. ay salaam rek. sëñ bi. rek sëñ bi ñu ngi dalal si affaire yi 2021 ñëw na de. te gis nga 2021 bi yaa nekk force kuma interview naka nga def Balde bëgg naa bu dooree nga laajal ma ko mu oyof tànk one two three rek salam may la ko ah. ne ko loolu ci la bokk tànk bi dafa am lalo. waaw <laughs> baax na naka nga dundee sa 2020 ak 2021 uh, loo ci plan waaw maa ngi nuyu waa réew mi di nuyu waa Sénégambia di nuyu sama doomu ndey waagaan di siyaar sama yaay Khady Niang di siyaar suñu boos bi nga xamante ne moo nekk Kiwi TV mooy Mouhamed Niang di ko ñaanal suñu borom yokk ko dafa ko jàmm dafa ko xéwal ba nga xamante ne 2020 bii. 2021. 2020 bii. 2021. 2020 dimbali ñu. 2020. Eh, 2020 dimbali ñu. 2020 waaw waaw. 2020 ko wan nag moo ko yor nag. 21 bi duñu seetaan ñu fi ñaaw. dañ ko bëgg. ndeysaan 21 de duñu seetaan ñu fi ñaaw. dañ ko bëgg ani loxo yu waay. ah ku bëgg sa yaay. ah sa loxo ca kaw. waaw ba nga bëgg sa baay. ñëwal sa loxo ca kaw. ñëwal kuy caatoo. ah sa loxo ca kaw. Ah. Ah. waaw ana caat yi. Ah. ah kuy caat ne jogal faxasu awa yee ko yor. Eh. dëgg la. xoolal eh du basa basa de dafay yomb <laughs> awa yee ko yor continuel tom ana aawo yi kuy aawo jogal yëkkati leen seen eh, loxo aawo yi jóg leen kuy aawo jogal yëgu daba aawo yee ko yor kuy aawo jogal faxasu waay aawo yee ko yor eh, ah. réew mi aawo ah. yee ko moom ah. xoolal réew mi aawo yooyu ñii ko moom waaye ñaareel xaritu jëkkëram eh, woyaay ñaareel xaritu jëkkëram ñaareel yi jóg nañ baj lu muy iñaan waa mi ngi noonu salaam waaw Salam Sarr di sama xarit. kontaan nañ ci moom waaye xam nga lan moo ma ci gën a naxari. Ah. yow naka ngay jëlee xale bu jigéen bu rafet. Ah. nga nga exchange ko ak ay mbaam xuux. ah doy na waar de. waaw xam nga la ko def. <laughs> xam nga moom time boobu mooy loolu. di ko nuyu Sidi Jaxate kontaan nañ. sama xarit sama naar bi. sama naar bi sama xarit sama. kontaan nañ torop borom ah, baax la fépp waaw waaw kontaan nañ waagaan euh, maanaam dafa mel ni 2021 bi euh, dina ànd si ak doole euh, ngelaw li waaw waaw affaire si nu ma ko gisee ah. waaw nañ ko mhm. affaire bu garaaw kon ñu ñaan rek barke jàmma ba pare jëm kanam ba pare yàlla may ñu wérgu yaram loolu am na solo lool ndaxte soo amul yaram doo mun a def dara laas ya am ñu fi nekkoon Euh, ba pare tey ñoom mënuñoo ñëw xam nañ ne euh, comme noonu la ko yàlla dogalee. Euh, képp ku nga xam ne mënuloo ñëw rek ñu ngi laa ñaanal waagaan. kontaan nañ ci yow bu baax baax comme ni ko ñang bala doon waxee sànq. liggéey bi yombul. ñu ngi am suñuy soxna may nuyu sama soxna di ko wax ni atum 2021 bi moo xam lu mu ci bëgg yàlla na ko ko yàlla defal. ak bépp soxna bu nekk ci kër. lépp loo bëgg ci sa àdduna yàlla na la ko yàlla defal. atum naataange la atum xéwal la. ta sentir nañ ko. wagan yëg nañ ko yee. wagan ah xale bi judd na. xale ba xale bi judd na 2021 baby bi ñëw na. nga ne juleen 2021 baby. Eh, may ma loolu ñëw na may ma loolu. ñëw na ñëw na may ma may ma ko. dugal nix may ma loolu. waa ñu dugal nix ana nix. doo ma may waa dugalal nix ba pare nga may ma loolu. woon ñu baby bi. ayca oh. nix wàññi ko bi xale baa ngi nii. xale ngi nii. tàccul leen ko. waaw ah. Ah, waaw Um, uh, di leen jaajëfal rek ba tax na rek right now fii uh, ñu ngi fii nii si hospital bi. Um, uh, comme nuñ ko dee waxee rek like first baby born bi mu ngi juddu sharp 12 kak on the dot. góor la góor la eh, baby boy la. baby boy la góor la. waxoon naa la ko. ana góor ñi. ala góor ñi. góor ñi góor ñi de góor ñi de. non baby gal la baby gal la bu leen jéem a jubilee. bu ngeen jéem a jigéen gars la. Eh. waaw ñu ne bébi gaal la waaye Faha jëlal ma ko rek. bàyyi leen ñu woon leen euh, bébi bi. si tuuti dinañ fi am benn noos. ndeysaan. waaw euh, kii nag euh, dafa juddu sharp 12 on the dot am na yeneen yu gars yi di expect nag. utee xal naa utee tuuti nag comme last year bi nga xam ne bu ma fi ñëwee ñëw naa fi fekk more than one but noonu la fa sharp sharp 12 la juddu sharp 12 bi waaye dinañ fi jéem a am benn noos rek at least ñu jéem a waxtaan ak moom. am naa rek ah, léegi tey dinañ fi ah, jéem a am gaay gaay a jéem a expect yeneen ak yeneen. Hmm. waaw waaga noo gisee noo gisee bébé bi. non bébé bi dafa nice. ah. waxal yaayam ne ko. waagaan. naam. waaw. na xool noppi bébé bi. mbaa ma wax ko maa ngi doon ut ñaareel am naa ko tey. ah so manam am nga jabar waaw ba tax na rek am nañ fi kenn si noos yi ñu jëm ko nuyu rek nos na nga rek jama rek uh, nos gis na ne ñëw uh, nañ fi uh, gis nañ baby girl bi nga xamne mo fi juddu mën nga ma wax something about rek time bi weight beeg you and condition yi yaayam ak am ñu ngi njëkk a wax jërëjëf si seen teewaay bi fi ni contane nañ trop pour am len fi ñun tamit ñu ngi delloo njukkal Um, media houses yi ñëw ñëpp pour ñëw tooyawee bés bii nii so actually <laughs> yaay bi was in labour boori 11 o'clock so depuis boobu nag ñëpp a ngi woon foofu noonu taxaw ñëpp a ngi bàyyi xel pour xool ndax doom bi dina ñëw balaa 2020 na 2021 la bëgg a ñëw waaye 2021 la bëgg a ñëw so sant yàlla yaay bi soonut xale bi juddu na mu ngi si jaama sant yàlla ba mu te doom bu jigéen la te comme liñ doon wax dafa ñëw juddu nag si at boo xam ne tey moom ay jigéen daka fi nekkoon di liggéey. Mm-hmm. team bi yëpp jigéen lañ. from <laughs> board li bi <laughs> ñëpp. kontaan <laughs> ñëpp jigéen lañ. ñu ngi ñu ne daal di ñaan ne at bii ñëw daal mu doon ati naataange nag jigéen na njëkk a juddu si at bi mm-hmm. waaw waaw bébé bi luy wéetam. Uh, bébé bi mu ngi wéy 2.7 kilos. 2.7 mm-hmm. kilos la wéy. ok fu mu nekk nii are we expecting more. because right now ñu ngi ñu ngi live on QTV right waaw ñu ngi ñu ngi ñu daal am na am na yeneen bébé yu ñëw séntu daal incha allah léegi tey. ok um, uh, waagaan uh, Soxna Hadi yéen a boobu am na bébé yu gaay di uh, expect still ñu ngi séntu gaay kon donc rek bàyyi ma delloo leen ko yéen mi nga xam ne yéen a ngi Sénégambia fu mu nekk nii right now di entertain gaay di bégal gaay waa next ñu jéem a seet beneen bébé bu ñu jéem a amaat waaw. Eh, waaw waagaan ah xamuloo fu yaayam dëkk de ah, yaayam fu mu dëkk xamaguma ko waaye xam naa su fekkee ne yaayam mu ngi ok dinañ ko jéem a am enewuloo ma jabar ok yaayam ñu ne mu ngi jógee New Joshua New Joshua la di ka ah? New ñu waaw New Joshua la di ka yàlla dundal bébé bi ayca kii moom suma néeboo la ah léegi de mooy xam mooy wane nag. waaw ba tax na rek bàyyi ma waaw bàyyi ma delloo leen ko euh, ngeen. Euh, waagaan foofu ba euh, bébé bi ak suñ MD bi Mr K ñoo di ñu happy birthday Mr K. Mr K waaw suñu xarit Mr K tam New Year's la ah, bintu kooka bintu kooka sama bintu kooka moom ah. it élec birthday mu ngi mel ni moom a ah. very happy birthday. waagaan lan moo comme démbala la ah. dafa waroon a xaar ba tey mu judd. waaw xam nga am na ku defoon moom tati foos la judd. <laughs> am na ku ko defoon de. Ah. <laughs> fekk jabar ji ci hospital bi rek téye téléphone bi naan ko xaaral des na tuuti. waaw xaaral may ma rek bul ma rusloo xaaral tuuti rek. <laughs> xaaral may ma rek téyel rek may ma tuuti rek. xaaral ba tuel fokk xaaral des na tuuti. waaye yow tamit xam naa ne tuuti ko doon nga def loolu. waaw ñu ngi jaajëfal gaay euh, képp ku nga xam ne yaa ngi seetaan ñu nge euh, kontaan ñooñu. Eh, ma ngene wa Basse yëpp happy new year wa Basse wa Basse meden salmina on meden weltani eyyi eh, kala mo ɗuɗa do wattu hida Basse urr angal fouta layout kaba kama you know koba kunda mane kunda mansa jang kunda you know Basse ndingiroba ba wagan safna de. ah fofu tàng wa wa fofu foofu yow sax da ngay tax su ma demee Basse da may gëna dimbalé wa thank you. wa ma nuyu ta jamme borom Neema. borom décoration maa ngi koy nuyu bu baax ba Eh, aji rohi bi tey ma nga ci Amérique nday ya Assa ya Ndiaye ñu koy nuyu ak ah, wa groupe ñang family eh, di nuyu Sadio Sey fofu ci panel Senegal, Ami ñang balu nuyu ma suñu yaay buy maman eh, ki di Yaama Diouf. di nuyu jeynaba Ami cisse Khadim Papi mama Kaja ak hal Islam ñaari Khady ñang yi ma am ma ngi leen di nuyu lu bare bare. walu forna waaw. may leen mama may ko suma frog style cameraman bi Cheikh Tidiane cisse frog style cameraman Cheikh Tidiane. moom moo nekk euh, caméraman bu laa jox style yi yëpp. su defe nii moom yooyu yëpp la moo def ba ma ma di best producer QTV di best producer mooy Korka Ba. Korka tàccu Korka. ana Korka Jallow wala Bakulo suma producer bi mooy best producer wel daare <laughs> producer kan Aliou Diallo borom xawaare ah Korka waaye man nag eh, du ma nangu de waaye producer du ma nangu de happy Sow mooy suma <laughs> best producer non man Sow kenn du moom non Ndeye Sow mooy best producer waaw waaw mu ngi noonu waaye ñang baalo Oli Diop borom bijilo nuy Xadi Diop di ko ñaan sëy bu barke yàlla jubale ko ak borom këram bijilo ayca ñun tamit ñu nuy ñi nga xam ne ñu ngi ñuy seetaan te di ñu bégee ku ci mel rek eh, Sader Silla maa ngi koy nuyu ca eh, Mamouda di ko bëggee bu di nuyu tamit eh, sunu wa kër yi bàyyiwuñu kenn di nuyu rek wa wagan family bi nekk Banjul ku ci mel rek Kabou Diop maa ngi koy bëggee bu baax a baax di ko siyaar ñaanal ko jàmm ak képp koo xam ne ngi ñuy ñu ngi lay ñaanal tawféex mu na artistes ñu ci ginnaaw ba na ci koo xam sax Sénégal la jógee ñëw ko Youssou moom itamit mu ngi ci ginnaaw ngir fas yéene gunge ñu ci guddi gi xam nga nag right naaw ñu ngi ci 2021. mu nekk lu am solo yaakaar naa dina am solo. kon dañuy delluwaat ci ki nga xam ne rek moom mooy Balde. waaw su waaw. léegi nag Balde Aïcha léegi nag. ma xaw a dem tuuti rek bàyyi leen Lady Kanku. madame Diagne. madame Dieng. madame Diagne. ah madame Diagne. madame Diagne. oh Kanku madame Diagne. tàccu leen madame Diagne Kanku. tàccu waaw boole si jaañ bi nag. kam ko sumbundu jaañ. waaw waaw bég naa. ñaga mogo. ama ñaga di. o taronto. tora sunda. maajab. waaw noonu lay tujee sa ngati ni munda ka sunka se sugatu tan anga a QTV hani dan katong ma koy na nga sukuñi ni salam yere ba aha gaa ngi fi jërëjëf oncle waaga jërëjëf anti hadi tey moom mooy loolu <laughs> ah, di nuyu waa Gambia yëpp ak Katombe koy na di bég ci yéen bu baax a baax. di leen war rek happy new year. yes am ngeen ne dugg nañ si 2021. waaw waaw Balde nee na ngelawi 2021 moo nekk di fuuf. sa balaakan waaye baax na. Ah, eh, jërëjëf waa Wagan yow tamit fi nga génn nooy na. bilaay sa balaakan waaye baax na kan moo la génne fi nga génn. waa Barcelona fashion shop ñoo jaar si lii. Ah. Ah. Mohamed nuy naa la jërëjëf ci daala bi ba ci yére yëpp waa Barcelona fashion shop ñoo si jaar. ayca waaye di nuyu képp koo xam ne rek yéen a ngi taxaw fii nii ñu ñu seetaan si YouTube bi. ñoom tamit fu ne nii weetuñ ndax ñu ngi eh, gis QTV live and direct fu gaay munti nekk rek ñu ngi live di nuyu waa Gambia yëpp bëgg ci yéen bu baax a baax tey fii de. dafa mel ni Gambia fii la ñëw. ngelaw bi ngelaw bi. ngelaw bee nee. nokki nga ko. <laughs> mu ngi nii dugg na ba pare. léegi nag jarbaat. <laughs> waaw oncle Wagan. dafa am benn ndaanaan boo xam dañ ko war a dugal. kon na mooy Youssoufa Mbuub. ok Youssou Ndouru Gambia. Youssou mi nga xam ne. Mhm. bu wéyee ngay yuuxu. dëgg la macha allah. Mhm. am na talent ba pare tamit. Mhm. bokk na ci yaakaari réew mi ci wàllu wëy dëgg mu génnee single bu bees tuddee ko Tabaski Tabaski tamit kon tàccu leen Youssou bu bu baax a baax a ca Youssou wayal bu ngeen bëggee mu bégal leen tàccu leen Youssou Youssou waaye yéen sama jabar jaa ngay dem di <laughs> sama sama bébi baa ngay dem di ay yow bébi baa day dem ci néeg ba bébi 2021 wan a nga ne day génn léebo dem ci néeg ba ah, mu ngoo kon <laughs> e tàccu leen Youssou waaye waaw leen Youssou fa bu bu baax a baax a baax asalaamualeykum waa Gambia waaw ah xadi waagaan du def lu dul nuyoo nuyoo bi maa ngi ciy jiital ku ñu naan Idi Diop Idi Diop Atlas tudd nga ku baax doomi ndey Mouhamed Dia bilaay waagaan Idi dama ko woy da koy woy dama ko woy woy nga ko woy woy bi dox di dox di dox ba agsi si moom ndeysaan mu ne ooyal leen ma Youssoufa ma ñëw kiram waaw fekk fa wajmaan bi ma nuyu ko mu ne ma yaay kan ma ne ko maay diw ko soxla ma ne ko idi mu ne ma xaaral ma ñëw waaw mu dem ne ma idi ne nga agsi waaw ma idi teral ma ak jabaram hadi job bu loolu weso mu sponsor suma clip bi bu mu ci album bi album bi is in the making. ah kon Idi ñu la gërem di la sante yalla la fi yalla yagal na single bi tay la génn. wow ban single la nu mu tuddu Tobaski la way Tobaski. every day la ku sa post diis rek mën nga Tobaski. ndax mën nga jënd xar def yu baax. ah lulu le na ne moy li am. Youssouf fo nekkon ah wagan. ñu baye mu sedd. baal mu sedd. ay ca kon ñu dem. legi dedet baal foog ma gërem ñi nga xamne ñoo ci clip bi. non bo paré ñu gërem yow da ngay gërem idi ke naka yus kenn du la teree gërëm bégalal gars yi ba pare. jërëjëf ayca you are my loxo yi loxo ci Tabaski xale yi di laaj déwénal léeg-léeg sax mag ñi bokk ceey ñoom itam ñuy laay dox di julli ci Tabaski xale yi di laaj Salibo sase si kaw ba ci loolu mooy suñu cosaan waaw xale yi ci laaj ndewenal léeg-léeg sax mag ñi bokk ceey ñoom itam ñuy laaj ndewenal waaw doxi julli ci Tabaski xale yi di laaj saliboo sañse si kaw be ci suuf loolu mooy suñu aada idi Jóob xaali maas Jóob mooy sa baay ma maska mooy sa maam seeni xadi joom ni sagal jëkkëram elimaan ñang maamaam yaa mu ndaw sa yaay dañu àndoon ci tayoor bi mu di ñu ñëwal ñëwi saaxu ju ay da seen ak maas mesul caan kan ya awa konaate mu di ñu ñëwal ñëwi bii si kumba tumbu yaa polis déggee tabala sama xel bi dafay yëg ci tubaski dëgg dëgg daal waay tàccu leen waay tàccu leen ko waay ah? mbaa kontaan ngeen ah tàccu leen Youssouf waay waaw tàccu kon tàccu leen bokk voilà waay Youssou ah kay li nga way lu mu doon ah, jaax na ma jaaxal na ma de <laughs> na laaj ko ko de jërëjëf jërëjëf xadi ah, Youssou lan nga gën a dund nag lu la gën a métti ci 2020 lu ma gën a métti ci 2020 yàlla rek nit ku nekk am na lu la ku nekk am na lu la neex waaye man lu ma metti mooy ah Gambien gis naa ne dëgg dëgg dëgg seen réew gannaaw waaye li ma métti mooy Gambia mooy ndaali te ndaali ñi fi dëkkut ñu ngi ñëw di ci root mm-hmm. di yóbbu ci seen réew ci suñ ndaal mm. loolu mooy li ma métti te ñun ñoo ko moom war cee root war cee naan loolu mooy li ma métti ndaa li nga xam ne ñoo ko moom ñi fi dëkkut di ko jël di ci root kon ñun war na nañoo delloo buum ca mbooy mbooy ga dëgg la amna solo te boya ah, bo ah, baye xel nak dafa melni ni ah, Wagan ak Hadi way bobu amna solo lol machallah man bu ne tobaski rek suma xel bi daal di dem si kharum tobaski man dama bëgg ndawal man ndawal mom ah kay man mom ndawal mom dama lay dagal de <laughs> rek lel de nak nag Wagan ak Hadi li ñuy def rek xam ngeen ne rek neku ne fi rek mo xapun Gambia bi fo munti dem rek ci biir dëkk bi fu nekkaa jax ba dañuy demat Westfield ñu jëli ki nga xamante ne mooy Asmaaw. Asmaaw Asmaaw moom mu ngi foofu ca Westfield. ayca mu wax ñu rek naka la Westfield mel. ayca ñu ànd ak Asmaaw te dellusiwaat léegi nii. Asmaaw.

bi ah, koo laaj ci biir réew mi rek li muy wax rek am mooy ah, yàlla na kure 2020 gaaw mu dem maanaam muy coronavirus bi moo moo sonal ñi ñi ci 2020 bi waaye alhamdulilah du nga ne ci 2021 yal na 2021 neex mu dàq 2020 léegi nag ñu ngi am ki nga xamante ne rek moom nag moom staff la staff fii ci ah, Q radio ñu am raati euh, fii nii ñu daal di waxtaan ak moom moom tamit euh, lan la ñoo wax si euh, bi te di la war rek happy new year raati. jërëjëf Kanku and uh, happy new years to each and everyone um, kontaan naa trop pour ñëw fii nii tey uh, on behalf of the entire Q radio um, bu nekk in between the Q uh, group. Q Radio suma uh, on behalf of all my staff and everyone we wishing everyone especially ñuy business ak ñun ak ñi nga xam ne ñu ngi advertise ak ñun ak ñi nga xam ne dañuy déglu saa su ne di oote si radio bi di contribute ak yu ni mel ñooñu nag duñ leen a gërëm di leen ne happy new years comme ni nga ko waxee la rek corona bi moom na fi em buguñ buguñ mu gunge ñu into the 2021 na fi em rek 2020 waaw waaye kontaan nañ trop. jërëjëf Raty yi ngi lay gërëm di la sant bu baax a baax. jërëjëf Kanku. jërëjëf Kankou kon ñu ngi bu baax a baax. Mm-hmm. jërëjëf Jarbaat. waaw di jaajëfal raati ñoom ñoo bokkandoo liggéey ci ay rajo. waaw waaw tey ñoo nekkaat kiw radio euh, lépp ci biir kiw group ñu ngi lay jaajëfal lu bari moom musicien la waroon a doon sax raati bi naam mm-hmm. dafa mel ni am nañ euh, beneen euh, wala dañuy ànd ak ki nga xamante ne rek muy nix. nix loolu ñu ah, amalaat xam nga ana nix lu nekka lay indi nix ana nga. <laughs> sama jarbaat bi. waaw moom lu ne lay wone du bàyyi dara next loo ñu amee amelaat tey de ba xana bu xonq la ma may nix daal eh, war nañoo lijjanti ay mbiram. bu xonq cor la ma may tey mbo mbaxana bu xonq la sol. ah dis ya mu ñëw solaat mbaxana bu xonq. non non jarbaat. war nañoo lijjanti ay mbiram a wax konoon du ko sol. non non oncle Wagan loolu ab sign la daal. because luñ def daaw waruñ koo def ren. ah moom daal loolu la def de. every year mu mayee ko. waaw ren dafa a spécial. trop di um, jël opportunity bi rek di wish kii di Aïcha Kinte happy birthday. teel a bàddeem ak képp koo xam ne rek teel a sa bàddeem maa ngi la naa wish Bintu Kooka ki ah. euh, Bintu Kooka moom itamit ëllëg euh, la bàddeem alaaji ñoxor euh, suñu xarit ah, alaaji Seewu Saar borom Amérique moom it ëllëg la bàddeem first January ok Rohi Malick Lo suñu mayoress waaw mu wish happy new year ñu koy nuyu bu baax a baax bu ko defee rek ñu dem ànd ak keneen am nañ beneen artiste boo xam ne moo war a ñu perform ñu nuyu ko mm-hmm. Jama Cissé ñu ngi lay nuyu lu bëree bëri Eh, di bëgg képp ko amé jamono ji yaa ngi bàyyi xel foo nekk rek ñu ngi am mbégte si yow dafa am benn artiste boo xam ne ok dafa wéyal Qcell ah kay Qcell artiste la daal mun nañoo wax ne xam nga ne ah, Qcell mooy the best network mooy the best network waaw ñu ko wax rof nii nga mhm. ma bëgg ngeen tàcc ko képp ku bëgg a Qcell rek tàccul ma booy bi tàccul leen ko bu baax a baax tàccul leen ko bu baax a mun ngaa tàccul booy bi rof nii nga ana ñu bëgg a Qcell rof nii nga ayca yow yow yow yow yow yaa ma digal Qcell cell, yeah, Q cell, Q cell. I said Q cell, Q cell, yeah, Q cell. Call me via Q cell, Q cell, yeah, Q cell, Q cell. I said Q cell, Q cell, yeah, Q cell. Call me via Q cell. We are the Gambia's first 4G mobile network. You're the fastest internet provider under what white Roaming partners, to new boss, our own, we are the boss. To new boss, our own, we are the boss. With you sales to power service. You can buy your gas power up to five thousand dollars. With QCell, you can send and receive your mobile money via Q Money service. To new boss, our own, we are the boss. To new boss, our own, we are the boss. QCell, yeah, QCell, QCell, I said QCell, QCell yeah, Q-cell. Kort me, VR, Q-cell. Q-cell, yeah, Q-cell. Q-cell, I said Q-cell. Q-cell, yeah, Q-cell. Call me, VR, Q-cell. With Q-cells for your life, you will have 45 megabytes per second. 3G plus, 3G plus. You will have 21 megabytes per second with Q-cell 3G you can get 3.1 megabytes per second. A, you have 384 kilobytes per second. 2G GPRS, you get 225 kilobytes per second. With QCell, our pride is to serve 1.8 million Gambians. That's why we say P for passion, R for respect, R for innovation, D for discipline, and E for efficiency. And E for efficiency boss, our own, we are the boss. New boss, our own, we are the boss. Kill cell, yeah, kill cell. Kill cell, I said kill cell. Kill cell, yeah, kill cell. Call me via kill cell. Call me via kill cell. Call me via kill cell. Yo, yo, yo, yo, we have a nigga said, we have a motherfucker nigga said. If you love, if you love Gambia, you love Q-Cell,

Get hard pussy, stuck up violent. That's Say more rough riders. Do it so bloody. You know what I mean? Ah, nigga. All of my homie J, we do it our way. Nigga, nigga money is the name. Yo, for the girl, nigga, make her free a monster. I go hard done a my for a cracker. Yeah, I mean a butterfly hustler, it up more, more a nigga make it. I'm a qualified hustler, I make it or break it. I'm getting paid, yo, that's what's up, old man. Now I'm bowling, more a nigga make it. Part of my ASAC, butterfly, homie. I'm a qualified hustler, I make it or break it. I'm getting paid, yo, that's what's up, old man. Now I'm bowling a nigga make it. my ace, apply hold me. Master rough neck, pepper all day. Make it all back. If we don't make money, you do sense. Suck my home, nigga, switch it plans. Puff, puff, pies, kush, and a strong line for them. Strong scars on dag, niggas on your with tags crusted over. Big, huh? Tell me what, yeah, this nigga until you see the outcome. That's the fact. Just do that. tàcc leen ko bu baax a baax a baax. jërëjëf. nice. thank you. all right I tell you what. What I want on this song is like that. Yeah. This crucial anthem uh, uh, was made by me, myself, Rough Nigga, I'm a rapper, yeah. the dopest rapper. But I would like if the owner of QCell, Mohammed Jah, if he's watching me right now, I want to have an official video clip on this song. Thank you. Thank That's you. Why I made this thank banner. You. All right. Me. Thank one, you. One minute. Excuse me. That's All why right. I made this banner. Thank you. Jerejef. Banner for for the song. Jerejef. You understand? jërëjëf jërëjëf jërëjëf ñu ngi koy uh, jaajëfal bu baax uh, uh, thank you so much Rof Niga léegi nag oncle Wagan ba tey rek sa spécial New Year's Eve la léegi ki ñuy oo on stage um, um, muy di um, Miss Ma ah. Miss Ma la ñoo am si stage bi Miss Ma foo munti nekk rek mun ngaa ñëw fii rek nga bégal gaay ndax Miss Ma tamit dafa doon koo xam ne artiste la The Gambian artiste la muy béy waaram macha allah na Sénégal amon fa uh, interview ak uh, uh, Sénégalese TV mu génnee clip bu ees bi nga xamante ne rek macha allah bu neex la jarbaat Wa Uncle Wagan oo oh, nga ndaanaan ah kañ. xale boo xam ne. ah ah yaakaar naa ni Gambia war nañ ko bàyyi xel. te muy doomi ndaanaan tamit. muy doomi ndaanaan tamit. dëgg di wéy nag. Mhm. di wéy nag different wéy yoo xam ne. bu la wéyalee olof nga ne loolu la gën a mun. mu dugg ci soose nga ne moom la gën a mun. mu def afrobeat nga ne loolu la gën a mun. mu mbalax nga ne foofu la munee. mu taasu nag. mu taasu nga ne foofu la gën a munee. sanse. ah waaye ta waaye eh, eh, misma eh, ana misma yow. tàccu leen ma misma bu baax a baax a baax a baax. leen ko xale baa ngi sa black black. waaw waaw lëmbal suwaak. waaw waaw ñu ngi la wax a new year misma te dalal la jàmm. mu génne album bu bees tàccu leen misma bu baax a baax. Yeah. jërëjëf tàccu leen ko bu baax a baax a baax a baax a baax tàccu leen Misma bu baax a baax a a a baax boobu jar yoon ah macha allah jar yoon jërëjëf di yëngal jamono ana xale la mal suwaat ana xale la mal suwaat ah, bu bees fi ñëw wagana xaadi ñang eh. sangu dooli nana eh. tàccu leen Gambia addu bees fi ñëw na waaw waaw madame addu bees fi ñëw na Gambia tàccu leen mu loxo yi ana wagan addu bees fi ñëw na Gambia tàccu leen ma loxo yi jërëjëf jërëjëf jërëjëf tàccul Len naan Misma bu baakha ba baax Misma tàccul ko ah jarbat waaw oncle Wagan Misma dey waaw mu ngi yëngal jamono de ah kagne loolu amna ah. sank ma ngi dégg muy wax ni Aha. fay waajal album launching incha allah boobu kañ la li album la kañ nga ko bëgg launch album launching bi Gambien yep nañ ko parel mhm. di sutura album affaire bu doy war mo nek fi ah. Miss Ma and the Jokadu Records on the 30th of January 2021 MDI Hotel School Garden na ñëpp ñew taju len loxoy ci si sutura album bi eh, eh sutura sutura lu tax nga ne sutura aduna lo gis sutura la deug la lu sutura bokul lek si aduna bayil mu dem amatut sans am solo jërëjëf Femme Misma madame Thiam madame Thiam may naa la dara loo bëgg wax ma loo bëgg yow madame Thiam roba bi jël waaw bi rek allah Thiam Babel dama Thiam ñang baalo waaw waaw dafa am loo xam ne ko laaj Misma waaye ñemewu ma lan dama koy xalaat tuuti ndax am na borom kër naa da ko bëgg a may ma ma xalaat ci da ko non non non non ah non non <laughs> waaye dama ko bëgg a laaj 2021 bi mm. <laughs> Miss Ma ku ne xam na ne yow tamit yaa ngi naan madame Thiam madame Diagne léegi yow madame ah. naka. Ah. waaw Miss Ma mooy madam Sigrid. ah, ah Sigrid <laughs> non bés ni ki tey eh, Miss Ma bés ni ki tey nag oncle Wagan. ah yow tamit jarbaat daf la bëggal lu baax rek. non waa waa jarbaat moom bëggal na ma lu baax waaye jarbaat yow yi ngay wax ni ci biir. déedéet Miss Ma xanaa ñu ñemewu ko di xale yi naka laa lay tontoo. non non kanku. dafa may def ko ragal. déedéet du ma nangu xam nga lu tax. déedéet. Miss Mass suñu xarit la. di sista ci waagaan. waaw ba mu jàppee ba tey. bàyyi ko déedéet lan la gaay bokka yu oh, oh, yu Mr Koli. ñoo bokk seen juróom-ñaari maam yi ñoo bokk maam. <laughs> kon jërëjëf Miss Mass ñu ngi lay gërëm bu a baax. This December, get a massive discount on all Samsung products. Samsung is offering up to 40% discount on refrigerators, deep freezers, washing machines, digital inverter air conditioners, television sets, mobile phones, and all Samsung home appliances. All products brought from our brand shops have one year manufacturer warranty. Don't miss out on our Samsung mega sales. Visit our brand shops at QCell's building along Kariba Avenue or at Bruce B Turntable. Call us on 3333217 for more information, these promos end on 31st December. Samsung, imagine. <laughs> it's happy time. Get 50% off all calls to any network. Enjoy calls every day to any network from 6 a.m. to 10 a.m. Is it too good to be true? <laughs> QCell. We innovate, others follow. By Parfum, the first perfume bar in Gambia. By Parfum Moulin indil Benin Fason wu parfum sa boutique bu rafet bu yànj bu mucc ayib ca By Parfum di nga fa yo ay yu amul fenn naturel. cëm ak seddaay bi boole si nag air freshener yu doy waar mel ni Vénus Flora Fresh 24 ay wuñu parfum bu classique waaye it bàyyi wuñu yi nga xam ne ñoo gën a famous si àdduna bi oud private collection ak yeneen yu am solo for the first time ñëw leen ngeen découvrir parfum bar mbir mu bees si àdduna bi tànnal sa flavor bu la neex bay parfum ñu ngi nekk 54 Kayraba avenue opposite American Embassy mën ngeen ñëw woo ci 77 000 35 wala 529 1888 yes Ay Misma te bàyyi ko mu dem tàccu len Misma bu baax baax Dilen ah dilen di aha ñu yabi aha ade waga. eh bi kanko ko mom suma xarit bi eh jërëjëf Moy calendar Jokkado Records bu gene tay. Eh. di leen wish everybody happy new year ah ma sha Allah album ba ngi ni nak. di ko teg seen loxo nag. ah kay. akul waagaan on behalf of QTV ah, dañuy profité waale rek. waaw am na xale bu réer. Ah. xale bi nag xale bu xees la mu ngi sol boobu mu ñuul. Ah. ah léegi nag xale bi képp koo xam ne rek am nga doom bu réer rek mën nga dem si police bi fii nii. waaw ngeen dem jëlee xale bi. mu ngi sol mbuba bu ñuul xale bu xees la su dee gars yi gisuñ seen parents mën nañ maa indil xale bi ma yóbbu ko. uyma ci police bi fii la nekk. waa si police bi fii. kon képp ku xees demal foofu. waaw yéen ñi xees dem leen foofu ngeen seeti xale bi ah. waaw xale bu xees pecc xale bi dafa xees. waaw xam nga moom mu ne yenn saa yi daf dee tooy waaye yenn saa yi daf dee ñor. waaye tey yéen fi tooy la def. tey kay xaw ma nu mu demee nii ah. xale bi dafa xees yow it nga ñëw gën koo tooy ne ko képp ku xees. ku xees na dem xool xale bi ndax yaa ak moom ma bokk. waaw moo gën a wóor Modou Moussa ah, maam Wagan. naam jamono ji alaaji ñoxor élecla ba dem ñu wish a very happy birthday. ah eh, kooku suñu xarit la di nuyu maam Baye Bitey suma genn wàll suma xarit. Ah, ah. Seri Mariama Baye Mohamed. waaw Sora Malick borom Westfield Seri Khadi maa ngi lay nuyu lu bëree bëri. di nuyu Amouna Ndiaye borom Amérique. maa ngi leen di nuyu borom Manning Café nuyu ma Binta Balde lu bëree bëri am ngeen jom de. am na solo am ngeen jom Modou Moussa Cissé. nee naa la tey yow du ñu noppi di la gërëm. waaw waaw moo def lii de dafa rëy waaye ñoxor ñu ngi kontaan ci yow di la wis happy. mu ne kot Amadou kot Ah, lu tax ñu ne code mu ne waxu oh, leen ma woon lii Amadou Sylla tam ñu ngi koy nuyu groupe yeete yëpp groupe yeete yëpp ñu ngi leen di bëgg dëgg la anti hadi oncle waagaan waaw waaye damay giiram Barcelona fashion shop waat ah naa leen si kaw ba si suuf ñoo si jaar chain bi black and white waaw black and white bi te Mohamed moo ma li sax Mohamed aha kay waa kangu dir ma Mohamed borom Haydara Plaza waaw Mohamed Haydara ci daal yi moo génn ci jaaru yu rafet yi ngeen gis ma sol dëgg la ñu ngi giiram tamit xam mm-hmm. ngeen ne rek ah, fii bunti stop step pharmacie la waaw ah, fii ci Sénégambia ñoo ñu euh, jof fii nii ñu taxaw fii mhm. euh, def lu ñu ne waaye ñu ngi gërëm stop step pharmacie euh, seen staff si yëpp di leen jaajëfal bu baax a baax te xam ne rek kontaan nañ ci gaay bu baax a baax jarbaat oncle waagaan suñu xol sedd na ah kay xam naa suñ fi naree wax baax baax yi fi la ñuy fanaan waaye ci la bokk ndax ñoom ñoo jàpp ci liggéey bi mhm. xam nga ne tey jii ci kaw ba ci suuf man duma ko waxaat sama rakk ju baax ji Keba Fall fa jaar waaye mu Moussa ko jënd defal ma lu rafet ba ci dàll yi mhm. macha allah lool nag dafa am solo mhm. waaye ñang baalo mhm. ñu gërëmaat suñu fans yi ak waagaan famille bi surtout nag waagaan soo groupe dañuy sonn ci ñun wax dëgg yàlla jamono ji xam naa ne ku ci nekk ku ci mel ni Yaamu Ndaw Kamara. waaw moom ñu ngi koy nuyu bu baax ak séri kokoom. Mhm. xam naa ne temps yi mu ngi mu ngi mu ngi feetu. waaw waaw waaye amul problème di nuyu ñoom Fatou Cissé. waaw waaw waaye di nuyu ñoom Xoroja. ñoom Moussa Mboub ñoom Moussa Mboub alaaji Kaabu Faye Kaabu Faye alaaji Babou Socé. Keba comédie. Keba ah ca ca Nungu mu ngoo Keba Kebe. Mhm. di ko nuyu ak ah, suma waa kër yëpp ci mel ni ah, Modado ñoom Ousmane Niang ah, di leen bëggee bu baax a baax. awa mu ndaw Mouhamed Niang ak soxnaam al Ababukar ak awa ba ñoom ñëpp soxna Kiné Gueye yaayu xale yi yàlla sa jàmm yàgg di nuyu ñëpp tey daal kontaan nañu. a la oncle Wagen. Ah. oncle Wagan fu mu duñ mën a fàtte ñi nga xamante ne tamit. Euh, ñooy tiimi QTV bi waaye bala may dem si tiimi ah, QTV bi damay gërëm ki nga xamante ne moom mooma make up tamit Ami Baro Ami's Beauty ah, salon ca ah, maa ngi koy jaajëfal tiim bi yëpp ñu ngi leen a gërëm bu baax a baax ñi liggéey control room ñi liggéey caméra department bi mhm. ñi nga xamante ne tamit maanaam ñu gërëm suñu bopp tamit ñun présenté si tamit ñu ngi leen a jaajëfal ñoom yëpp ku ci mel ni rek waaye programmes tamit jàpp nañ si bu baax a baax. Bala Moussa Coulibaly. waaw Seri Lalla. Bala Moussa waaw uh, ku ci mel ni Ndeye Sow. Ndeye Sow tamit yow ci sa bopp. Mhm. Ndeye ak uh, Asmaaw Buuba. Buuba waaw ñoom ñëpp ci programme sañ bokk. Mr mhm. Cole jërëjëf Mr Cole. waaw Aliou Diallo. Bouf Balde. Mr Ka. Mr Ka. waaw waaw. waaw uh, Mr Francis. Mr Francis. ñu ngi koy jaajëfal. waaw ak Tunkara ba tey rek ma jaajëfal kanku euh, euh, fi nga xamante mooy ma diva collection fi ma jëlee dress bi ma nuyu bu baax ko eh. di Ndey Binta Soxna foofa ca Bijulo highway bi ma eggee nag téeméeri dress la ma tegal ne ma nattal boo bëgg nga jël wax dëgg yàlla ñu nuyu bu baax kooku di Fatou maam faatu euh, di ko ñaanal jàmm ak salaam bu baax a baax di ko ñaanal jàmm ak salaam maam Fatou Kora madame Bojang waaye kenn du ñi nga xamante ne ñoo fi taxaw rek am ngeen ne ñi depuis seven am na ñu fi nekk. depuis seven ñu ngi taxaw fi ah, ba léegi ñëppaa ngi taxaw taccu leen seen bop bu baax ba amu leen morom bëgg kiw tv rek waral li laaj leen ndax contane nañ. way legi nak xam nga li ñuy ah. def. Ah. waaw damay dugg ci biir geew bi rek. dem waxtana gaay ok dawal dawal ñu ngi lay xaar dafal lolu ma daw waaw waaw dawal. ma daw wala dawal ma daw. way gaay yi ngay dawal waxtaanal ak wan bàyyi wan. tur bi. benn benn. naka. Paa Modou. Euh, happy new year. yow foo dëkk. Sanjaba. Sanjaba da nga jógee Sanjaba ñëw teew fii nii Sénégal bi euh, looy wax sa famille bi. taago naa ngeen. taago nga leen. loo leen di wax wax leen happy new year. happy waaye xoolal kii oncle waagaan naam xoolal kii dafa fon ne ñi ñi xàmmee wuñ ko ah waaw xàmmee nañ ginnaaw gi lañ xàmmee sax kii xàmmee naa ko bu baax a baax ni ma joxee gannaaw ni noonu lañ gi waaw mu ngi jàpp jàmburam <laughs> léegi damay dem si eh, gannaaw tamit jarbaat kaay fii naka fii affaire bi fii la ñii ñoo ko yor yi gaa daw xaar fii affaire bi fii la waaw xaaral ma ñëwee nii ñii ñoo ko yor maa ngay ñëw si yéen léegi tey xale yu jigéen yi naay si fi lañ nekke boor bi yaa tudde naka <laughs> kanku fi nga dal baaxul de waaw ah, ok bàyyi ma dem sa moom sa xarit la moom moom làmb la xam làmb jarbaat dugal foofu foofu baax na waaw kay foofoo baax sira bul génne bii de bañ a génne maa ma yàqu ga génn naa laajal ma jonga ma boobu sista na nga jaama rek borom ice cream bu neex bi tur bi Fatou Fatou fi nga dee jaay déedéet ok tey dañ fi ñëw rek ngir ah, New Year's bi. waaw loo am pour wax sa famille ak ñi nga xamante ni ñu ngi lay seetaan si jamono ji QTV live. ah New Year bi daal yàlla 2021 bi ba mu narut 2020 bi so lan <laughs> nañ ko fekkee. jërëjëf jërëjëf wax ko bu may ma ice cream way wa may ñu ice cream non non akul wagan ki bi bu ñewé may nañu ice cream bu bari sa ah man mayuma de man mayuma de man balde moo ma jëndal ah, wa ñu demaat jarbaat sa doxantu baax na akul wagan ki yaa ngi ah suma gorango sa doxantu baax na suma borom tama bangoog borom tama bangoog kan la ci onku wagan ah suñ xari tangi fi ah waaw waaw ya tama ngi ni kan la yaasa ya ta ngoog xanaa borom ya- tama sa ya- neex la wala sa ginar ana yaa tatama siis na nga def man de gisatuma sama jarbaat ba li wóor na maa ngi salaam i toodu ulay ulay Diop ulay Diop ulay Diop ah, bi mu ñu yas ñu yas leti ne soto i b'a fola i la familier ah. eh. ala welnu ñuy ya mo se al e daw jam ya rabbi ya min ko mi pullo ka pullo kanko ñewna min ko ker sere jarbaat ker sere ñu yuda Arama. ayca ñu jaajëfal ku baax suñu jarbaat kanku ok oncle Wagan ñu ngi lay bëggee sa doxantu baax na ñu ne waaw nga ñëw ma waxtaanee gaay fii eh, léegi nag dinaa gi rek ñu am li nga xamante performance ndax man maa ngi ni si digg ñi ñi ci digg ñi ngi lay seen gis oncle Wagan maa ngi lay seen tabal tabal happy new year tabal tuti ma seen <laughs> happy new year happy new year happy new year happy new year happy new year happy new year happy new year jarbaat waxal loolu ci olof ma dégg at bu neex at bu dellu si jaajëf madame Diagne ñu ngi lay jaajëfal bu baax a baax waagaan dañuy ñëw nag dugalaat keneen ndaanaan beneen bu ñu naan aji njaay aji njaay eh, waaw aji seka aji seka waaw waaw seka si ganaar ñëwal bañu kaw ko teree aji seka ngi noonu yow ya, rek la ñuy xaar nga yegg si waaw waaw aji seka waaw waaw waaw aji yéegal iya Styles on the beat. It's Styles music. try to buy you. Lajal City for job agwali se. you bungi nyungi job di try buy music. Yeah yeah, music lenya. महबूब national musique danga koy jox lépp mu jox nga tarbiyu ko mu jox me volteara la mano. xool su sabem Moi sama mamboy Soma wailu ya waila mau dos Mai formare Ah, wa aji yow kañ nga door way Man yaguma ko door ay rek ko Aji nga ne international demagum guma fen way international ñepp mo bëgg foo ti dem Sénégal Gambie ak fepp fu ti doon rek ñepp bëgg aji te diko ah way aji toj nga fi de yaay international way xamna naa international bi ma sha allah wa ñu ngi lay ñaanal di la wish eh, good luck. Eh, musique bi yóbbu la ci international comme ni nga ko wéyee àdduna yëpp di la sétane ñepp di la gis ñepp di bëgg yow. contane kontaan nañ joxal bi thank you so much. way bu neex la reprendre ni wa wa xale yu am talent ñoo ko woy ah, ñoo toppaat def ko lu ah, def ko lu doy waar moom it ah, ni nag ñu ngi bëgg a eh, ci ndar képpal programme bi léegi nag dañuy bàyyi kanku mu tàggoo damay damay damay laaj gars yi ndax doyal nañ buñ doyalu dañuy continuer de doyal ngeen ah doy na ñu ñibbi doyalagu leen madame eh, eh, Diagne ah waaw am jërëjëf jërëgeen jëf mbokk yi ay ndeysaan euh, madame Ndiaye waw ah, madame Thiam aha ah, gay jërëjëf looy tàggoo doom xam naa bég nga waaw waaw jërëgeen jëf mbokk yi jaajëfal ñëpp képp koo xam ne rek yaa ngi àndoon ak ñun euh, depuis euh, ten ba léegi ñu ngi leen a jaajëfal bu baax a baax once again di leen wax rek happy new year happy new year di jaajëfal Gambie bi yëpp di jaajëfal suñu customer si QTV ñëpp. di jaajëfal ñi nga xamante ne ñoom teew neen fii nii tiim bi yëpp ah, lim nañ ñëpp ah, di leen jaajëfal bu baax a baax waaye kenn du ki nga xamante ne moo jaar si make bi ki nga xamante ne mooy Ami Baro ak ah, waa Barcelona Fashion Shop ngeen jëf si daala bi ci si blazer bi ak si adresse bi jërëjëf Mohamed kontaan ci bu baax a baax waaye di jaajëfal ñi nga xamante ne ñoo nekkoon si biti boobu nag dinaa leen bàyyee rek ngeen nuyu gërëm ñooñu seen xarit seen soppi la woon Lady Kankou madame Diagne ñu fanaan ak jaama bye bye. thank you. ok nag dañ leen di may nag ambiance. waaw waaw ngeen bëgg yeen ñi taxaw fecce ba pare ñun ñu door a tàggoo. waaw waaw àca ambiance bi la ñëw da ngay tàggoo ba pare. waaw waaw ñu ambiance. waaw ndax fii. nar naa yëngu gars yi dañu ñëw tasaare fii. déedéet lu leer laa la wax. nañ ambiance ba pare. Ah. ñu tàggoo. ayca kon jeex ñu ñibbi. ayca kon nañ ambiance kon. waaw waaw. Aïcha maa ngi nuyu Diaga Mbaye Awa Kara yaayu Bamba Cheikh Tidiane sama doomu ndey sama awo baa ngi noonu waaw waaw si la borom jaamani maa ngi lay nuyu lu bari ah waaw moo gënoon a de Aïcha Aïcha nañ ko ah. ambiance Get the news!

Diallo. bu ko defee rek ah, gars yi toog di seetaan mama Ramu Diouf Birkama nuyu suñu boppam Moussa Bojang ñu ah, koy nuyu foofu ca Birkama bul baree baree bari di nuyu jaaga ba tey tamit di nuyu naanoo suñu xarit boobu ci bijilo di kontaan ci yaa mu Njaay ak Bilta Balde borom café Manding ci Amérique ñu ngi leen di nuyu ba baax borom restaurant bu rëy boobu ah, xam ne ku fa duggul duggoo ñu ngi leen di duggee Amérique foog ñu nuyu waa Ajara. waaw waa Ajara association. waa Ajara association ñu ngi leen naa nuyu baax di nuyu Sidiki suñu xarit. Mm-hmm. di nuyu tamit ki nga xam ne mooy Yaamay. ah kay koy bëggee bu baax a baax. ci Amérique Yaamay Bojang Sarr. ah kay foor na di nuyu tamit. ñi nga xam ne ñoo nekk fi nga xam ne mooy itali xam nga mm-hmm. ñoom dañu dañuy seetaan mm-hmm. alaaji fay ñu ngi koy bëggee bu baax a baax mm-hmm. di ko ñaanal tawféex ñang baalo ma bàyyi la nga tàggoo waaw xam naa ne comme waxtu wi jeex na waxtu wi jeex na tàkk banta freng di ñaanal ñëpp atu jàmm ak salaam di gërëm di whole team of waagaan euh, euh, QTV crew bi nga xam ne tey ñoo fi woon liggéey ah, rek liggéey bi yembu ba yéen ñi seetaan ngeen kontaan di bëggee képp ku toog jamono ji sa saal di ñu seetaan waa ñi ne ci dashor ba bi di ñu seetaan ñu ngi leen di nuyu bu baax a baax di nuyu suñu yaay suñu papa yi di ñaanal ñëpp atu jàmm boppa mbas mi ne jógee fi te bu mu ñëwaat ah, ba pare waxaa rek ci kooku di maam Fatou euh, borom borom maak Diva collection foofa ca Bijilo highway bu yàggu rek maa ngi jot Fall ak yeneen kon dañu lay ñaanal jàmm ak salaam borom Diva collection foofa ca bijilom di nuyu bu baax a baax képp koo xam ne jamono ji yaa ngi seetaan Modou Moussa moo génn ci rob bi Mariama Diawara suñu make up artiste bi Minas moo ñu make up ah, ki nga xamante nag mooy Mouhamed Haydara Plaza saa yu ne moo ci jàpp moo joxe suñuy takaay suñuy dàll ñuy sol puis sax da koy joxe borom Haydara Plaza bëgg nañ ci yow ñu es bi na yu rafet yëfa la ne mën ngeen dem kon ah? di la gërëm di jox ñëpp dig daje ba beneen yoon déwénati ah fekkee déwén. déwénati fekkee déwén. suba looy toggaaj. suba. loo bëgg. Euh, suluxu mbalax. suluxu soo jógee fi foo jëm. su ma jógee fi damay tëri. ah man de tëriwu ma. ah laay damay lonk musée. ah waaw moom dem ah man xaar kër ga. <laughs> madame ak may xaar kër loolu am na solo allah mu ngoog mu mel ni rek euh, may euh, wax ni Keba mhm. sama rakk ji nga xam ne tey moom moo jël yëre yëpp teg ko sama loxo. Modou Moussa jëndal ma ko. moo Kéba Fall bu ngeen bëggee yére yu rafet da ngeen dem ci moom ci Latikunda opposite marché bi ci kaw tali highway biir kaama bi nombre am 370 la 8587 370 8587 mu nekk lu am solo nix kaay euh, balaa may tàggatoo rek su ko defee ñëwal éegal nii ci kaw su ko defee ñu daal di tëjandoo mu nekk lu am solo mm-hmm. next ma joxe rek nomba euh, ma diva collection 3447 triple two wala ah, double seven three five six eight three waaw ca Bijilo Highway ma diva collection waaw maa ngi fay ñëw nag ma am na yu góor. waaw waaw. am na yu góor kay bala Moussa ko bëggal kos xam nga moom biir bi dafa rëy <laughs> moom ak baakari ñu jaajëfal Bakary bu baax. maam Fatou Kora. Bakary sama xarit mu ngi ci ginnaaw. Mhm. ñoom Kool wax dëgg yàlla team bi mënuñu leen gërëm. dëgg dëgg ñoom Youssoufa. waaw ñoom euh, Aliou Diallo. Mhm. Euh, ñoom Buuf sonn nañ torop. Youss ñoom Buuf ak Youss. Bac mi ngi fii. Sira ngi nii. Korka Baja ngi ni sama xarit Cheikh Tidiane Cissé. nee naa ko boolewuloo dara ak wax yow. Bac Sira Badji sama doom. ah Cheikh Tidiane ngi nii Korka ngi ni macha allah ak Moustapha ñoom ñëpp jàpp nañ ci liggéey bi. Mhm. doom day loo jëlee fële. sama jabar ji indiwuloo ko. waaw sëñ bi waaw di leen jaajëfal rek. booy wax ak man da nga war am yar ak teggin. génneel baxana bi euh, génneel waaw aha <laughs> xam nga man dama la ko dee wax loo bëgg rek na doon jaama waaye soxna Xadi soxna Xadi bii fan moo fa jaar ku fa jaar bi yow dafa mel ni waraloo woon a xaar 2021 dugga si sax da ngaa naaw rek àgga ci 2021. Ah, ah, ah, ay waay non téye ko fa waaw waagaan baxana bi dégg naa 2020 moom nga soloon dem. ñu iya non mahana bi waxal boobu beneen bi la rakam bi la ah rakam bi la bii denca naa ko ah, for two years maa ngi ko soog a génne dag maa tiital di bii denca naa ko for two years ah xam naa Nigerian yi suñ ko gisee sax dinañ jaaxle so naka naka naka naka baby boy bi baby gaal bi waaw baby gaal bi car uh, macha allah um, lopitaan bi ah takka bi because uh, ñu ne boobu waagaan lañ boobu ñu ne ko waagaan lañ koy jox ah, waaye anyway comme euh, yaay bitam tam fu mu nekk nii sant yàlla mu ngi ok like waa euh, all la waaw waa all Jos Wang la ba pare xale bi euh, mu ngi juddu sharp 12 kak sharp 12 xale bu rafet sëñ gi xam nga man foo teg sa bët duma ma fay bëgg a teg suma bët ki ne gay dal nelaw sa wujj ngi doog a tey ndeysaan tëddal nelaw sa wujj mi ngi doog a juddu tey waaye sëñ gi sëñ gi bii kan moo fajaar no non bii nag Keba Fall way jëlal leen ma ko uh, ya, si si o oh, mu ne naka mu ne da ngaa wiccax Mohamed mu ne ma del wiccax mu ne ko da ngaa wiccax gaay di gis ah ma daal li lii soxor lan la lii soxor iñaan gi waaw waaw ma ne ko Sénégambie nag car macha allah nu ma ko gisee nii rafet na torop rafet na torop waaw ana gaañi ana gaañi ana ngeen ana gaañi mbaa yéen a ngi enjoy seen new year képp ki nga xam ne buguloo at bu mel ni 2020 delu si waat ma gis seen loxo si kaw. loxo yi na jog gisaguma de. na loxo yi yëkkateeku na gisaguma de ah. waaye yal na at bu 20 ah, bu mel ni 2020 bu mu dellu si waat. ayca ah, ki nga xam ne rek ah, looy ñaan yàlla yal na ko yàlla teg sa loxo. mu seedal sa xol. amiin ubil ñu bunti sa yeeg yëpp. di leen jaajëfal rek ne leen. affaire si rafet na waaye sëñ gi. waaw bon dog ñu téye ko fa rek. waaw nañ ko fa rek inshallah Friday waaw ñoo far thank you next waaw bu ko defee waagaan ñu gërëm bu baax place bi nga fi lañ fi lañ programme bi stop step pharmacie ak ñi nga nyeb nyom ñëpp ñoom seen staff ñu ngi leen di jaajëfal ci bërëb bi di jaajëfal it euh, bai Parfum di Medina churai, mhm. ñi nga xam ne nañ sponsor guddi gi euh, ba mu baax gërëm Qcell nga xam ne ñoo boot QTV ñoo boot Q groupe bi yëpp mhm. ñoo leen bot kon ñu ngi wax jërëjëf Mohamed Dia di la ñaanal jamu ak ren yalla nga mën lu ko raw ay deweni deweni déwén ah, di jaajëfal kep ko xamne rek yaangi teewon fi japp ci liggey bi bamuy yem bu ñepp mëna a seetaan di la jaajëfal suma xarit mo doom bi di la ñaanal a very happy special new year amiin waay yàlla nga ci barké yalla nga ci am alal ju bari tukki wër àddina wërngal këpp dinañu neex lool di balu ak ñepp ñi nga xamne ne am wax nañ wala def nañ fi dara lu méngul ni ngeen ko bëggee ngeen jéggal ñoo xamne ne du suñu mhm. di jaajëfal ñi nga xamne ño teew tey ci place bi di Sénégambia àndoon ak ñun depuis ñu stade ba léegi nii di gërëm képp koo xam ne jàpp nga ci liggéey bi mbaa nga toog ci sa saal mbaa nga toog ak sa njaboot di seetaan QTV ñu ngi leen di gërëm di leen jox ne yéen di leen wax ne yéen ñëpp ñu ngi leen di wis a very new happy euh, euh, ñu ngi leen di wis happy new year di at bi nga xam ne mooy 2021 dàq ci at yi nga xam ne moo passé waaye di wax ne tamit QTV gàcce ngaa laa ma ñoom ci seen liggéey bu rafet bi nga xam ne ñu ngi koy am lépp loo xam ne rek askan wi dañ ko soxla ñu ngi ci taxaw ngir am ko ñu jox leen ko loolu mooy li nga xam ne moo ñu war di leen wax ne ñu ngi koy waxaat di leen dig programme yu bees yi nga xam ne mi ngi ñëw ci 2021 bi na ngeen ko xaar spécial li nga xam ne mooy waagaan show di ngeen ci gis ay changes yu am solo ak yeneen programme yëpp di ngeen gis balde gis ngeen ko fii weltaare dina change di ngeen gis leneen waaye itam gis ngeen fi bégee di ngeen gis beneen bégee di ngeen gis yeneen programme yoo xam ne yu bees la at waaw xawaare tam mu ngi ñëw di programme bu bees ah kon yaakaar naa ne QTV di dox ci lu dul leen di leen bégal di gërëm ñi nga xam ne tamit ñoo jàpp ci liggéey bi comme sponsor yi nga xam ne ñu ngi àndoon ak ñoom ci guddi gi ñu óolu QTV ba tax ñu ñëw jàpp ci programme bi rawatina place bi ñu nekk ak képp koo xam ne jàpp nga ci caméraman yeeg yi nga xam ne ñooñu technicien si ak musicien yi nga xam ne joynoon nañu tey ci guddi gi ñëw bégalante ak ñun ñu ngi di gërëm di leen sant bu baax a baax di gërëm suma xarit salaam ak ki xam ne mooy Sidi Xadi Ñang Baalo moom dootuma ko gërëm dama koy ñaanal yàlla di gërëm sama waa kër yëpp di gërëm képp koo xam ne rek sama fans nga ñu ngi lay jaajëfal di la wis happy new year ci at bu bees bi ñun ñëpp yàlla nañ ci yokk ba yëg ko gis si suñ bopp lépp lu mel ni 2020 bu mu fi amati ñu ngi jaajëfal ñëpp di kontaan ci ñëpp di leen jox dox dajee ba next year thank Bay Parfum the first perfume bar in Gambia Bay Parfum moo leen indil beneen façon parfum sa boutique bu rafet bu yànj bu mucc ayib ca Bay Parfum di nga fa fekk ay cuuraay yu amul fenn te naturel cëm ak seddaay bi boole si nag air freshener yu doy waar mel ni Vénus Flora Fresh 24 bàyyiwuñu parfum bu classique waaye it bàyyiwuñu yi nga xam ne ñoo gën a famous si àdduna bi oud private collection ak yeneen yu am solo for the first time ñëw leen ngeen découvrir parfum bar mbir mu bees si àdduna bi tànnal sa flavor bu la neex bay parfum ñu ngi nekk 54 Kayraba avenue opposite American Embassy mën ngeen ñoo woo ci 77 000 529 1888. Buy Parfum, the first perfume bar in Gambia. Buy Parfum, it's another way to perfume yourself in a luxurious and attractive shop called Buy Parfum. Come and find rare and natural churai flowers and also the fragrances of the biggest popular brands Oud Private Collection, Air Freshener, Flora, Venus, Fresh 24, and many other products. With Buy Parfum, discover the Parfum Bar, a new concept in the world Personalize your scents with the perfume bar. With the perfume bar, choose the perfume that looks like you. Buy perfume 54 Kayoraba Avenue opposite to American Embassy. You can join us on 7700025 or 529 Buy perfume Gambia. You will really love it.